ginnaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaan xéewal ak mucc yàlla na nekk ci moom yonente bi ak ay saxaabaam ak mboolem ku topp njubam gi fi ba yowmal qiyaama ginnaaw loolu ñu ngi dajee tey ngir tàmbali benn séminaire de formation bi nga xamante ni amaana nekku ñëpp lañ convoqué waaye ñenn lañ convoqué ngir mu nekk jàng boo xam ne nañ ko jàngaat ci liggéey bi nga xamante ni yor nañ ko mu nekk liggéey boo xamante ni ci toolu islam la ak teggin ya nga xamante ni dëgg-dëgg laaj na ko kon séminaire bi séminaire de formation la dina feeñ ci thèmes yi nga xamante ni moom lañ fiy taxawee ñu ngi jéggalu bu baax itam ci retard bi nga xamante ni am na nekk suñu coobare waaye mbokk bi sax def na effort yu baree bare ndax ci tukki la jóge démb ñu ngi koy sargal di ko dalal di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla dëgëral làmmiñam jubal ko ba lépp la nga xamante ni wax na fi wax na ko fi danañu jëriñ ci wàllu àdduna ak alaxira kon thème bi nga xamante ni moom mooy thème bu njëkk bi nga xamante ni dina am tey ndax chaque jour dina am ñaari programme benn bi dafay am ci suba gi beneen bi mu am si ngoon si donc bi nga xamante ni moom mooy am tey dafay jëm ci les conduites de la concertation adabu shura mooy teggin yi nga xamante ni réunion yi ñuy def ak ak xalaat sottante xalaat yi nga xam dañ koy def yan teggin dëgg-dëgg lañ ci islam jàngal kon dama koy jox xam naa bu ci duggee dina gën a leer incha allah jarul ñu leen koy présenté asalaamaaleykum
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نجي dimaniko sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mboolem sunu ay mbir nu ngi koy bàkk di ko kañ moom sunu borom di ko wéetal di ko kennal ci ak nguuram di ko sori lépp loo xam ni moom mooy xeeti sikk ak i manqué ki ayib waaye di ko saxalal te di ko seedeel lépp loo xam ni mooy ak mat ak ñàkk ak tëleem ci dara ak sori gu mu sori lépp loo xam ni mooy xeeti wàññeent yi nga xam ne dafay gaar mbindeef nuy seede ni ku wét la ci nguuram te aajowul ku ko wéttali waaye ku jagoo te féetewoo te wéetoo tamit ak màggaay ak kawe waayam di seedeen moom moo yónni woon muhammad salallahu alayhi wa sallam ndawam loolee nga xam ni amut lenn loo xam ne sunu borom subhanahu wa taala santoon na ko mu jottali ko lu dul jottali na ko doog fiy jóge nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala bu mu dañ di dotti waamem xéewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain comme ni ko doomu ndey bi junjee nu ngi jéggalu ci yéex gi tàmbali ak yéex gi yegsi kon du ñu def rek lu dul sóobu ci mawduu bi nga xam ni mbokk yi tànnoon nañ ko sax suñu ko ngir ñu duñu wax sax waxtaan ci waaye ñu def ko mu nekk comme ab darsu euh, ndax dafay baax di lool comme ni ko ni ñu koy baamtoo ci lu bari maanaam doxalinu jullit ñi dafay laaj léeg-léeg ci euh, banqaas yu mu mën ci doon suñu dee dox ba mu yàgg ñu def ak taxaw goo xam ne dañ koy tuddee taxaw seetlu taxaw seetlu googee mën naa nekk ci ay jawaanib yu bari ba ci njëkk mën naa nekk taxaw seetlu goo xam ne dafay càmbaru jëmmi ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal liggéey bi ci seeni mbiri bopp waaye am na beneen bànqaas goo xam ni dafay jëm ci jëmmi liggéey bi léeg-léeg nag danañ tànn jëmmi dars boo xam ni dafa mel ni dafay boole ëmb ñaar yooyu mooy jëmmi kiy taxawee liggéey bi ak jëmmi liggéey bi ndax léeg-léeg dees na jël darsu def ko ci tomb boo xam ne dafa mel ni dafa jagoo benn ci ñaar yooyu waaye léeg-léeg danañ jël benn darsu boo xam ni dafa boole ëmb ñaari mbir yooyu yépp te nu ngi foog ni mawdu bu am solo bii ngeen tànn ngir nu def ko mu nekk ab bind ngir nu mën cee jariñoo balaa ñuy wasaaroo tey maanaam dafa boole ñaari banqaas yooyee yépp muy jëmmi kiy taxawee liggéey bi ak jëmmi liggéey bi tamit loolee nag mënul ñàkk di ko waxtaanee ak di ko saytu ci jamono bu nekk ci dundu jullit bi ndax borom bi subhanahu wa taala dafa bokk ci doxalinam ci ay mbindeefam surtout nag ci anam gu gën a fasu te tënku ci ñi nga xam ne ñooy woote woo ngëm di topp yoonu yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam sunu borom daf leen a tracel rëddal leen xettil leen aw yoon woo xam ni maanaam yoon woowee fii ñu ngi fay jaar rek duñ mës a gëlëm ndax yoon woowee tanzilum min rabbil alamin loole moo tax bokk na ci jamono lu muy gën di gannaawe di gën a jeex maanaam ngay gis pouvoir bi jullit ñi amoon duñu ko amati xel mu ñaw mi ñu amoon duñu ko mën a amati maanaam même ñu njëkk ña nga xam ni malgré boo dee xool seeni manqué ay moyens amuñu woon ay jumtukaay amuñu woon ay ay ay matériels yoo xam ni tey jamono soppeeku na ba da mooy yooyu dafa bokk ci yiy dimbale xelam nit ki pour mu gën a togg jëm kanam waaye ñoom boo dee xool manqué gi ñu manqué woon loolee lépp dafa mel ni sax dafa leen a jigoon teewut dañ daan dox aw dox aw doxalin wu mucc ayib boobu dafa fekkoon ñoom dañoo jaaroon ca tracé googi nga xam ni maanaam borom bi subhanahu wa taala mu moo ko tracéel boppam jaarloo ci ab yonenteem yonente bi jaarloo ci ay saxaabaam loolee nag lu yaatu la ci anam gu xóot moo tax bépp bunt boo xam ni bëgg nga ko cee dugal ci lu jëm ci liggéeyu islam bi rek ci anam gi gën a suufe ba gën a gën a kawe maanaam daf cee daal di mën a xaj kon ni ko mbokk mi junjee ci mawdu boobu ñu joxe woon muy aadabu shura muy teggi ni shura waxtaanee ko dafa bokk ci tomb yi am solo yi nga xam ni maanaam waxtaanee ko bokk na ci li ñuy dimbali ci tomb yu bari ndaxam xam ngeen ni de maanaam islam moom mooy diine joo xam ni amut lu nuy waxtaanee ci biiram lu ñàkk solo loolu moom amut léeg-léeg nga dégg aji wax ji mu ni mawdoo bi am na solo loolu tekkiwul ne yeneen mawdoo yu amul solo ahankay maanaam yépp am solo waaye ci biir am solo ga dafa am yu ca gën a amante solo ndax am na ci yoo xam ne yu nu aajo wala lool te boo dee xool ba ci biir sax da ngay gis ni néew na lu nuy faral di toog di ko waxtaanee loolu bokk na ci gàllankoor yi ak gàttañlu yi nga xam ni maanaam léeg-léeg yenn suñuy jafe-jafe ci suñ biiru doxalin moo nu koy jural kon ci loolu ginnaaw bu ñu defee gëstu boo xam ni gëstu la bu gàtt lool mën naa ni guddut ndax waxtu wi ñu yégee programme bi ak léegi maanaam mën naa ni xat na lool ngir ñu waajal mawdu bu ni mel ànd ak ci tukki la ñu jóge yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ay gàllankoor la ba dëgg-dëgg maanaam nekkut loo xam ni mënees naa yaatal yaatal goo xam ni lépp moom mënee su ko wax waaye yi gën a am solo yépp dana ko indi waaye ñu wàkkilu sunu borom subhanahu wa taala lu ma way waxtu may rek ñu jéem cee leeral njàngale islam ci lu jëm ci tomb boobu mooy ashura baax na lool te dinañu aadawoo maanaam bépp ab baat boo xam ni rot na balaa ñoo wax lu nekk ca ron baat boobee ci ay njariñ yuñ cay balluloo xam baat boobee mooy lan maanaam xam baat boobee mooy lan borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci saytu goo xam dañ koy saytu alfaadu sharia moo xam ci alquran la moo xam ci assunna almutahara la moo xam ci aqwalul ulama ya am na ay téere yoo xam ni dafa jëm ci di saytu baat yi di xool baat bi moom lan la ëmb ci wàllu luga baat bi lan la ëmb ci wàllu istilaax bi nga xam ni moom la ci sharia jublu ndax léeg-léeg istilaax bi nga xam ni maanaam làkku arab nga xam ni aw làkk kese la loola moom kay ka nga xam ni jaani bu luga moom moo ko yitteel kooka la yitteel waaye ki nga xam ne moom xam baat bi lu mu wund ci islam kooku maam istilaax bi nga xam ni moom la ko borom xam-xam yi jox moom moo ko gën a yitteel moo tax ci romb gu gën a gaaw borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam baatub assura buñ ko jëlee ci wàllu luga maanaam assura muy diisoo bala ñu ñëw ci wàllu teggin wala teggin sax mën naa jiitu ndax dañu aadaabu shura teggin moom lu nu xam la maanaam ay teggin mooy lépp loo xam ni maanaam ci wàllu orf dafay nekk lu rafet waaye ci wàllu islaam it kon dafay daal di gën a rafet te it ay teggin maanaam nekk na bunt bu yaatu boo xam ne yonent bi saa sallam jàngale nag ci ay xaadisam comme ni nga xamante ni ñu bari ci ñun xam nañ ko amaa jëmi bu dee baat biñ ci yitteel nag muy shura borom xam-xam dañuy wax ni shura de bu ñu ko waxee ci wàllu luga mi ngi jigee ci shaara shuraa maanaam shaara shura ñu ne wa shura uddaaba maanaam raadaha wa rakibaha li yaxtabiraha wastashaara maanaam ay labisa thiyaaban xasanan mu ne wa shuratu alxusnu waljamaal ci lay continuer ba di leeral mu ni wa shaawarahu fi l amri ay talaba minhu lmashura borom xam-xam yi ñu ni suñu waxee baatab suura ci wàllu luga maanaam bu fekkee ci baat bi dañ koo dugal ci lu mel ni ak jur lu mel ni fas wala ay demee noona maanaam nit ki fexe ba naxtaan ak jur moo xam fas la wala mbaam la wala lépp lu nuy war ba man koo noot ba war ko pexe yooyee muy def di nabbi na beeg moom mel ni kuy naxanteeg moom danañ ko tuddee suura ci baatab luga niki noonu maanaam léeg-léeg luga danañ istashaara te fekk mi ngi ci namm maanaam al lubsul xasan maanaam labisa thiyaaban xasanan nit ki bu fekkee dafa sol yére te fekk yére bi mu sol yére bu rafet la mën nañoo jëfandikoo baatub istashaara fekk ci wàllu luga la ñuy wax ba léegi léegi dañuy wax shaara al asal maanaam istaxrajahu wajtanaahu maanaam nit ki su fekkee def nay pexe ba nabb nabeek lem fa mu nekk ca lëm googe nga xam ne ca la ko lem yamb ya def ba génne ko danañ jëfandikoo baatub shaara waaye li ëpp nag ci li mu gën a siiwee ci wàllu luga ndax léeg-léeg am na alfaad yoo xam ne garaibul alfaad la maanaam baat la yu raar yoo xam ni léeg-léeg di nga ko wax nit sax guléet mi ngi koy doog a dégg waaye nag mu lim gën a siiwee ci wàllu xam am shaawarahu fi l amri ay talaba minhu lmashura maanaam diisoo naak nit shaawarahu fi l amri ay talaba minhu lmashura maanaam mu sàkku ci nit ki mu sottenteeg moom ay xalaat wala mu dolli ko li nga xam ne mooy xel li wala fi tuddee xelal ma ma ñëw nga xelal ma amma jëm bu dee istilaax nag arragibul asfahani rahimahullah maam dafay wax ni almashura istixraaju rayi bi muraajaati albaad ila albaad maam daal istilaax bi gën a matale ci wàllu shura moom mooy di ballulu ay xalaat di bàyyi ko ci ñenn di jëm ci ñi ci des nga xam ne dafa mel ni ñenn dañuy toog déglu seeni morom ba ñu génne seen xalaat ba noppi ñoom it ñu daal di génne seen xalaat su ko defee jokkalante xalaat yooyu dafay bijji bu ñu noppee bu nekkee ñu defar tax a jóg la dañuy seet wiir xalaat yooyu xalaat bu ci gën a rafet rek ñu daal di koy taamu jaadu nañu xam ni dafa bokk ci maqaasidu sharia muy jubluwaayu sharia comme ni nga xamante ni borom xam-xam yi dañ koy lim ñi di ko takk ci juróom comme lu mel ni xifzu nafs xifzu diin xifzu nasl wàññi ba mat juróom yoo xam ni yooyee borom xam-xam yi lii mooy kat maqaasidu sharia maanaam bokk na ci jubluwaayu sharia yii moom maanaam ci dund gi moom du ko bàyyi mu des gannaaw bokk na ci moom mooy maanaam xifdul aql wattu am xel maanaam bokk na ci li nga xam ne islaam sonnee na ci lool mooy wattum xel te boo dee xool togg jëf yi maanaam islaam daf koo teg cim xel doomu aadama lu mu bari ay man-man lu mu mënti mel ak xeetu bindin bu ko yàlla jox maanaam xel bu xësee génn ci moom rek kooku islaam toggatu ko jëf moo tax xifdul aql muy wattu xel ba xel mi mën a nekk xel mu ñor xel moo xam ni maanaam dana amal njariñ borom bopp ba mu sax foofa la ñuy fekkee ndeke suuraakat muy diisoo ak wecconte ay xalaat ndekete moom mooy ponk wattum xel ndagam borom xam-xam yi danañuy wax ni day nit ki lu mu xelam ñor ñor wala lu xelam ñaw ñaw wala lu mu am am capacité man di tracel boppam ay yoon yu jub yoo xam ne ci xelum boppam la koy balluloo maanaam borom xam-xam yi ñun dañ koy compter ku matadi fii ak moom du diisoo ak lu xelam ñor-ñor nag bu yeboo nit ñi sax ñu yéemu cim xelam waaye su fekkee kooko du diisoo ma am dañ koy compter ku matadi loolu moom borom xam-xam yi dañ koy wax maanaam di wane doomu aadama lu mënti mel rek fa mu ëppee njariñ sax mooy fa mu xelam ñoree ba pare muy diisoo loolu kon ci lañ gis ni kon ndekete maanaam lii tax société bi mën a am ak dox ay jéego jëm kanam lii tax saytu gi ñuy saytu suñuy mbir mu mën di nosew loole dafay aju ci bépp mbir bu nu yëkkateeti rek maanaam ñu daal di cay diisoo xool ana kenn ku ci nekk lan moo cay gisinam te it nag diisoo googu du caage ni ñëpp a koy def maanaam du caage ni ku nekk koy def dañuy dajale mbooloo rek façon nit ku nekk ma nga ca façon xel mu ne ma nga ci ñu ne acci ñun ñëpp kaay leen ñu diisoo déedéet waaye loolu nekkul doxalinu islaam doxalinu islaam xëy na dana feeñ ci sunu bind bi insha allahu taala su ko defee kon loolu nga xam ni moom mooy bokk ci jubluwaayu sharia muy wattum xel te bokk na ca la nga xam ni moom moo gën a mën a saytum xel moom mooy di diisoo su boobaa dañuy xam ni kat maanaam loolu ñuy tuddee darura mu nekk nécessité nit ki mu jéem a sàmm am xelam wala ñu sàmm lul ko am xelam loolee lu jaadu la lu war la maadaama xel moom dañ koy sukkandikoo ba ci ballu lu fi nga xam ni moom mooy maanaam atte yi nga xam ne moo bàyyi ko ci suñu borom subhanahu wa taala ak sunu yonente muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu dafay daal di jàngal julit bi ci tàmbali gi rek ni ki kon ndekete maanaam war naa jàng ak yamale maanaam yamale ci nit ñépp kenn ku ci nekk am na liberté bu fekkente ni joxe xalaat jot na ginnaaw bu mu jaaree fa ki war a joxe xalaatam di jaar mu am liberté bu joxe xalaatam su paree nag mu xool ndax danañ ko jël wala déet beneen bi ci des moom mooy am liberté maanaam xalaat bi nga xamante ni moom nga am te yow nga jàpp ni bii kat moom bu baax la nga daal di koy proposé joxe ko buñ ko jëlee xayrun buñ ko jëlut it nga am liberté bi joxe ko beneen bi mooy danañ jàngal nit ki tamit nag maanaam mu am liberté mën a defe naa critique yi ngeen koy wax su fekkente ni nit ki am na lu mu joxe te fekk loolee dëppoo la sa gis-gis nga def ko li ñu tuddee an naqd naqd moom mooy kii kat joxe na benn xalaat boo xam ni xalaat boobu man giseewu ma noonu la tax gisee mënu du samay bànneex waaye moom fa mu sukkandiku indi ay adillaam ba joxe xalaat boobee man foofa laay sukkandiku ba indi ay adilla yoo xam ne mooy dindi xalaat boobee yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne maanaam nit ki daf koy jàngee ci buntab bunt bi kon sunu xamee noonu ci tënk bu gën a gàtt ci wàllu shura ci luga ak shura ci wàllu istilaax bi nga xam ni moom la ko borom xam-xam yi jox rahmatullahi alayhim léegi du nu mën a xuus ci benn mawduu boo xam ne dees na ko def ndax loolu mooy li jaadu lu nuy dañ lu dul dañuy dellu ci almarjiul asli muy delluwaayu source bi nga xam ne mooy source cosaan bi nga xam ne mooy téere yàlla bi su fekkee ci ki gëm yàlla la di alquranul karim maanaam ñu jéem koo wër tuuti xool ndax baat boobu ñëw na ci alquran wala déet ak bu fa ñëwee nam fa ñëwee ngir xool gi ni xool ni ñëw na ci alquran yooyee ay bind mënees na ko caa génnee suñ noppee mënees naa jàll ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool baat boobu di baatab suuraa muy diisoo ni mu ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu xoolaale tatbiq maanaam niñ ko doon pratiquer ñoom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moom mooy njiit bi gën a màgg ci jamonoom nan la ko doon dundee ak ay saxaabaam naka lañ ko doon dundee ci gannaawam suñ ca noppee doog a ñëw ci teggin yi nga xam ne nag yooyee maam képp kuy shura war na koo am mën naa yi tënk yooyu ma wax moom mooy mawdu bi insha allah ginnaaw bu ñu leeralee shura ci wàllu istilaax bi nga xam ne moom la ko lugawi yi nii jox ak borom xam-xam yi jox ñu xool baatab shura maanaam wëndeeloog moom ci biir alquran xool ni mu ñëwee te aaya bu mu ñëw rek ñu mën caa génne jàngale doog a jàll xool ni mu ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak importance boo xam ne joxoon nañ ko ko teyit nag mu am amee ko noonu solo suñ ca noppee xool naka la yonent bi doon dundee sallallahu alayhi wasallam suura ci jamonoom ak ay saxaabaam min baadihi suñ ca noppee doog a ñëw ci maanaam teggin yi nga xam ni maanaam bépp individu bépp nit kenn koo xam ni moom tànn nañ ko wala bokk ñu ngi diisoog moom wala boog mbooloo moo xam ne ñoom ñoo war di suura maanaam yii moom may lim te mujjee ko yooyee kat war naa am ci ñoom su amul ca ñoom sikk nekku ci ni mbooloom suura moom des ko war a tas ndax du islam noonu lay doxalee. loola nag du wax junu wax nii rek waaye maanaam ci biir gaaral gi nuy gaaral texte yi ñu lay bëgg a jox mën nga cee génnee lay sabab sax wax jooju wala lii moom charte la boo xam ne laazim la képp ku ñuy diisool mu nekk ci moom. wala mépp mbooloo mu ñu tànn tuddee leen ahlu shura ñoom war na noo mel noona su ko defee bu ñu delloo ci alquran dañuy ñëw ci sursub cosaan boobu ñu dellu ci suratul baqara foofee nga xam ni fa la borom bi subhanahu wa taala di junjee ndax foofu sax ma leeral bala ma ciy soobu mooy baatab shura ci alquran dafa ñëw ci anam yoo xam ni anam yi junj la nga xam ni borom xam-xam yi ñoo ci balluloo ne lii de dafay junj shura nga xam ni ñëw ci ci baat bi lafz bi lafz ab suura ñëw ci loolu am na ci ay aaya waaye am na aaya yoo xam ne itam nekk ñett ci alquran benn baa ngi ci ali imran benn baa ngi ci suara ak beneen aaya boo xam ne mu nekk ñett yoo xam ne benn bu ci nekk maanaam baatab suura moom moo fa ñëw baatab suura moo fa ñëw mu wan leen lii moom lii lay firi suñu demee ci suratul baqara ci junj yi nga xam ne borom xam-xam yi ñoo ko ciy balluloo في برم بوقي سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فوفي خمني سورة البقرة برم سبحانه وتعالى منجي وق أي ملاكام nan leen man dey seen borom dama fas yéene sàkk ab mbindeef bu ñuy tuddee nit mbindeef boobu ñuy tuddee nit su ma ko sàkkee ba noppi dama ko bëgg a wàcce ci kaw suuf mu fay dund ah malaaka yi ñoom it daal di joxe seen xalaat atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ndax sa sunu borom da ngay wàcce koo xam ne bu demee ci kaw suuf ndax boo jiitu woon na ci kaw suuf ay nit jiituwuñ fi ay jinne ñoo fi jiitu woon doon yàq ka wasaare ah ñoom it ba ñuy joxe seen xalaat lanu gisoon rek lañ joxe ndax da ngay wàcce ci kaw suuf koo xam ni dafay tuur deret di yàqaate di mooy yàlla te ñun ñi ne fii di la sàbbaal yàlla xanaa kon balaa caag sax kon nga wàcce ñun ñun ñi ci kaw suuf ak ñu dem fa defari sunu borom ne inni aalam ma la taalamun man nag moom wax dëgg yàlla xam naa lu ngeen xamut man nag xam naa lu ngeen xamut borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam aaya bi ishaara qawiy mi ngi ci ishaaratun qawiya ab junj bu bu xóot bu dëgër ci buntab suura donte nag sunu borom kenn du ko askanalee suura ndax amul ku muy diisoon waaye ab ishaara la ab junj la bu sunu borom boo xam ni borom xam-xam ñu ne mën nañoo ballu ci njàngale yi nga xam ni maanaam day balloo ci waxi sunu borom subhanahu wa taala ñun ñu mën cee jariñoo mooy su fekkee sunu borom mi nga xam ni moom moom du diisoo kenn la shakk aajowul ku mu diisoon te it soxlawu ko te du def lenn naan diw lu ciy sa xalaat ndax iraadaam ak machi am dépassé na naan nit ki lan moo ciy sa xalaat wala malaaka lu ci sa xalaat léegi sunu borom yàlla moom dafa wax ak malaakaam moo xam lam ca namm ko ko ci coobarey boppam la borom xam-xam ñu ni kon de lii day ishaara bu rëy la bu fës ci bépp doomu aadama boo xam ni ab aji julli gëm yàlla la mu xam ni su nekkee sunu borom moo doxalee nii ci mbir moo xam du suuraa la ca jublu te it nekkut lu ko war te it bu ko defuloon kenn du ko ca wax dara jaadu na bépp jullit boo xam ne yëkkatee dina benn mbir balaa mu cay def wala mu wax ca am na ñu ko gën a jege ñoo xam ne mën na leen koo gaaral ba xam ñoom lu cay seen xalaat sunu borom di soo waru ko iraadaam ak machiaam ak qudraam qudraam dépassé na loola malaaka it ñoom it wax dëgg yàlla lu ñu sell sellum xelit nag moom mënuñoo xam lu dul la leen suñu borom xamal te it seeni xalaat dong lañ mën a joxe nag kon loolee ab ishaara la bu dëgër ci wane ne kon ndeke maanaam jullit bi lépp lu mu yëkkateeti rek maanaam war na cee mën a diisoog am na ku ko gën a mën a ku ko gën a jege koo xam ni war na ko koo gaaral maanaam déglu xalaatu kooka ndax wala fi la nii lépp nan xel du doy kooku benn ishaara la ci ishaaraat yi nga xam ne quran andi na ko beneen ishaara bi maanaam mu ngi nekk ci suuratu naml fi borom bi subhanahu wa taala di wax ci suuratu naml fa nga xam ne fa la balqiis doon waxee ci qissa bu gudd boobu nga xam ne dox na digganteem ak moom balqiis ak nabiyullahi suleymaan ci picc moomu nga xam ni suleymaan yabal na ko jox ko téere idhab bi kitaabi haada fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur maza yarjiun ba loola amee picc ma di hudhud ci xissa bu gudd boobu comme taxuñoo jóg mu ñëw daal di tëmbal leetar boobee ca kanamu balqiis balqiis lan la wax qaalat ya ayuha almalau inni ulqiya ilaya kitaabun karim ah man day mbir xew na ndax kat man kat dañ maa jox ab téere téere boo xam téere bu tedd lool la ndax gis na ci ñu bind bismillahi arrahmani arrahim mu rëy lool ci moom innahu min sulaymana wa innahu bismillahi arrahmani arrahim alla taalu alayya wa atuni muslimin la axil aaya ba loola amee man kat mbir am na dan maa yónnee ab téere bu tedd boo xam ne mi ngi nii ñoo nga def ca kawam bismillahi arrahmani arrahim téere baa ngi ci bàyyi su bàyyi ko ci suleymaan wax na liyeeg liyeeg liyeeg liyeeg ba loola àggee balqis daal di geestu maanaam gàngunaay gi nga xam ne ñoo ko wër mbooloo moome qaalat ya ayuha almalau aftuuni fi amri ma kuntu qatiatan amran xata tashhadun balqis moo jiite balqis moo yore pouvoir bi bu dee ci jamono jooju sax ñoom dañuy jàpp ni kon balqis moo leen war a gën a mën a ñoroom xel ndax ñépp ay baadoon lañ war a doon ci kanam ci seen gisin ñoom gisin boobu nga xam du gisunu islaam waaye ba téere ba roteekat dañu ya ayuha almalau yéen mbooloo mi aftuuni fi amri aftuuni fii tekkiwul fatwa bi ngeen xam maanaam sottil leen ma seeni xalaat lay tekki jox leen ma seeni xalaat ci mbir mii nu gaar ndax kat baaxawuma gis nga maanaam du mbir mii kese ma kuntu qatiatan amran xatta tashhadun man baaxawuma dugg ci mbir lu dul dama leen a laaj seeni xalaat ba pare lu dul yéen da ngeen cee joxe seeni xalaat kon gis nga ndeke moom nga xam ne maanaam du njàngalee islaam sax moo ko ngemb moom balqiis moomu ndax moom xamagul luy islaam waaye moom baaxoowul woon di dugg ci benn mbir lu dul daawoo gaa yi ni leen lan ngeen ci xam su fekkee kooku dub julit alquran di ko nit ci li borom xam-xam ñu ni bii tamit beneen ishaara boo xam ne ishaara qawiya la ci wane ni kat ndeke maanaam nit ki warul dugg ci benn mbir lu dul da caa daal di diisoo su ko defee am na teqatle bu ndaw bu ma waroon a leeral ci baatab suura balaa maa yegg si fii ñu dab dabaatal ko mooy diggante assuura ak istishaara baat istishaara moom moo gën a gàtt istishaara moo gën a gàtt moo gën a fasu moo gën a tuuti maanaam assuura ndax suura bu ñu ko xësee wax rek dafa daal di commencé nekk mbooloo wala mu nekk mbirum liggéey bi ci anam gu gën a yaatu wala mu nekk mbirum sax ab gouvernement su fekkonte ni ci islam la ñuy waxee waaye bu dee istishaara nag mën naa nekk nit ki dem ci benn mbokkum jullitam ni ko nañ diisoo kaay jox ma sa xalaat kooku borom xam dañ koy tuddee istishaara nga xam mën naa nekk diggante nit ak nit kese mën na nekk ñaari nit kese ndax xam ni boobu moom moo gën a nekk lu fasu waaye bee moom moo gën a yaatu kon loolu tamit ak teqale lu gu am ci ñaari baat yooyu su ko defee noonu suñ delloo ba léegi ci suuratu shuara suuratu shuara firaaw na ci qissaam boobu ak Muusa firaaw naa ngi wax qaala lil malaw xawlahu lil malai xawlahu inna hada la saaxirun alim yuridu an yuxrijakum min ardikum fa maada taamuruun gis nga keroog boobee nga xam ni la xewoon diggante firawn ak Muusa xew na ci seen diggante ah firawna commencé Muusa di ko indil ay xujaj ak ay barahin yoo xam ni miir bu mu romb dana ko faagaagal mu daanu su fekkente ni du dëgg moo taxawaloon miir boobee firawna ba mu demee nag ba gis loo xam ni fees na bëtam kii ko gën a ñorom xel te fa muy balluloo bokkut ak fi kii di balluloo ba ko jaaxle dikkale lu mu wax kii day ab njabarkat bu màgg la ab bu xaaba bu xam bu xaaba la li ko gën a yitteel daal mooy daf leen a bëgg a génne ci seen suuf sii fa maada ta'murun waa kon lu ngeen may digal moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ni su fekkee firaawn ak ni mu yeree di ko ak ni mu yëgee woon boppam xam nga ku dem ba ne ana rabbukumul aala kooku moom wax dëgg yàlla kon war naa mën a bañ a diisoo kenn ndax moom kon mooy dogal ci gisinam mooy dogal moo xam moo xam kumpa ci gisinam moom moo xam li ñëwagut moom moo xam mbir mi suñ ko doxalee fan la mu jëntal gay am waaye li muy ànd ak ak rëy ak yaree di ko lépp lan la wax fa maada ta'murun waa kon lan ngeen may digal ma def ko léegi kaay leen nu diisoo léegi lan la ñuy def ah bu ko defee bu xaaba yi nag kenn ku nekk nag commencé di fëll kenn par kenn di joxe seeni xalaat te it Firawna daal di jëfandikoo xalaat yooyee mu génn tamit ak li muy kàccoore kàccoore moom Firawna kon loolu ay ishaaraat la yoo xam ni mi ngi ci dajaloo ci alquran yoo xam ne borom xam-xam ñu ni mën nañ cee balluloo baatub suura amaa nag ñetti barab yi nga xam ni baatab suura moom ci boppam moo fa ñëw ci alquran mooy ñetti barab yii ma lay tuddal nga xam ne benn baa ngi ci Ali Imran benn bi nekk ci Naml benn maam benn bi nekk ci Shuara benn bi nekk ci suura benn bi nekk ci suratul baqara maam baqara Ali Imran ak suura soo delloo ba léegi nga yéegaat ci kaw ci suratul baqara ci aay yi nga xam ne moom dafa jundu indi nag baatab suura moom bi nga xam ne moom moonu soxlaal fii borom baa ngi wax ne wal walidaatu yurda'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaa wa ala almawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaaruf laa tukallafu nafsan illa wusaaha laa tudaara walidatun biwaladiha wala mawluudun lahu biwaladih wa ala alwaarisi mithlu dhalik فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إلى آخر الآية كن وتشاور جوجو دفا جنج باتب ديسو بون ميموني ياي سني نامبال سيني دوم نانيو نامبال ñaari at yu mat sëkk waxuma ñaari at waaye xawlayni ba noppi kaamilayni ñaari at ba pare ñaari at na mag bu manqué weer li man araada an yutima radaa képp koo xam ne moom amul ngant képp koo xam ni bëgg a matal nampal ci islaam moom moo ko tax a jóg kooka daal na nampal ñaari at yu mat bu mu ca manqueel benn weer kaamilay ni na mat ah su boobaa nag baayu xale bi moo war di joxe lay wodd moo war di joxe lay dundal moo koy jox ndeyi xale bi moo xam ñu ngi ànd moo xam dañoo teqalikoo nag ba keroog xale bi nampam di jeex ci àttey borom xam-xam yi doon taxuñoo jug junj baa ngoogu suñu borom muy nag du caagane nag dañuy teg benn bakkan lu mënut ku góor ki ñu koy laaj ci ay laaj ngir mu dundal xale bi loo xam ni ëpp na dooleem wala bokk ndaw si moom it ñu di ko jox loo xam ni dëgg-dëgg bu ko téyee du ci mën a dundal xale bi ñaar yu yépp benn ci lorante bu mu ci am ah su fekkente ni dem nañ nag ba bëgg a feral xale bi suñ demee ba bëgg a feral xale bi jot bëgg a feral gii nag tekkiwul bëgg a feraluk ñaari at ndax bëgg a feraluk ñaari at feral ñaari at la bu matee ñaari at amul nañ diisoo dañ koy feral ndax loolu mooy njàngale islam waaye nag bu ngant amee ci diggante bi ba xale bi ñu war koo feral ngant yooyu mën naa nekk ndaw si ëmbaat ci diggante bi mën naa nekk ndaw si feebar ba mënatu la nàmpal mën naa am mën naa am comme yi ngeen xam ngant yi dab ba tax xale ñu koy teel a feral yooyee su fekkee am na feral xale bi jot yaay bu mu tëbee fële rek mu ni doom ji daal na fer sonn naa déedéet wala bàyyi mu ni xale bi dama koy feral mu jeex déedéet waaye borom bi dane fa in araada fisaalan an taradim minhuma wa tashaawur feral moom saa bu naree am ci diir boobu rek ñoom ñaari ñëpp kenn ku ci nekk na gërëm feral ga waaye wa tashaawur nañ ca diisoo bàyyi jeeg yaay ñu toog diisoo sottantey xalaat ci mbiram feral gone gi ba dëppoo ca su boobaa ñu doog a feral boo demee ci borom xam-xam yi ngi mu fassirun dañuy wax ni maanaam boo dee xool lii da lay wan yitte joo xam ni maanaam islaam jox na ko nampa xale bi ndax su fekkee xale bii nga xam ne ay mbiram daanaka yeggagut fenn moom la ñuy wax nañ ko suuraal ngir xool ci ay mbiram ndax namp gi mën naa dakk wala mënul dakk loola da lay wan ni kon ndeke suuraakat maanaam du lu ndaw kon kooku benn ci junj yi nga xam ne ñëw na ci alquran boobu nekkul junj maanaam ci ishaara ci tudd yi nga xam ni islam maam alquran tudd na ko baatu suura mu leer beneen bi ci suratu ali imran borom baa ngi wax ni fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fazzan ghalida alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi al-amri fa idha azamta fatawakkal ala allah yow yonent bi sa lewet gi nga lewet ak yërmande ju yaatu ji nga am ak yéene bi nga yéene kenn ku nekk yiw ba ñoom sax ñu xamal ko seen bopp loolaa tax kat maanaam nga mën a jëflanteeg ñépp loolaa tax nga mën a boot boote boot ñépp boote njaboote ñépp waaye gis nga boo nekkoon koo xam ni ku ku tar xar kanam nga ku fasu ak xar kanam nga koo xam ni ku tàng diine nga su boobaa kat nit ñi dañuy daal di daw dem seen yoon seete fu ñu mën a amee jàmm ah comme nag def nga la la war yow yonent bi ah faafu anhum ku defati njuumte ah su boobaa baal ko nay bokk ci saw doxaleen di baale te it nga di leen jéggalul yàlla waaye nag bu mbir nee këtt ni jonn su boobaa wa shawirhum fil amr na nga diisoog ñoom subhanallah alazim danaa wax mbokk yi ci aaya bi ma ni leen su nekkoonte ni borom bi moom kenn du ko askanale suura loolu waxatuñ ko waaye yonent bi moom mën nañ ko askanale suura ndax basharun kal bashar mbindeef la comme mbindeef yi ci jëmminu bindin waaye nag bokkut ak mbindeef ndax yàlla daf ko wax yu waaye mbindeef la ci biir mbindeef yi moo ko wax ndax qul innama ana basharun mislukum mbindeef laa comme yéen su fekkee en tant que mbindeef mu nekk koo xam ne ci société bi la bokk nga xam ni su amoon kenn kuñ naan kii am xelam wóolu nañ ko wala nu doyloo ko ba ni moom du suuraa du diisoo kooku moom dañ naan yonent bi la moom sallallahu alayhi wa sallam waaye nag yàlla mu ne ko déedéet wa shawirhum fil amr mbir bu dikkatee na nga diisoog ñoom moo ne aaya bi ba mu wàccee abdullah ibni abbas dañu moo ne yàlla akub yonenteem gis nga dañu yàlla akub yonenteem ñoom ñaar ñu doyloo lañ diisoo buñ ko defal woon du yàq ci seen i mbir dara loolu la abdullah ibni abbas waxoon bi aaya bi wàccee kon wa shawirhum fil amr mooy mbir bu gaaratee bul jàpp ne yaa jiite rek nga ñëw jël saw doxale ni ay ca nañ doxale ni déedéet waaye wa shawirhum fil amri na nga diisoog ñoom laaj leen waaw nangam ji lu ciy seeni xalaat mu ne laaj xalaat googu dina am solo ba ci dundu yonent bi loolu dina feeñ ci kanam léegi insha allah ci noonu borom bi mu ni kon wa shawirhum fil amri fa iza azamta fa tawakkal ala allah soo demee ba dogu nag na nga wàkkilu ci yàlla dogu googu tamit li muy wundu ñëw na ci xadis dina ñëw léegi ci tënk insha allah kon yooyu ak aaya bi nga xam ne moo nekk suratu shura saar boobu nga xam ne moom borom bi sax daf koo tuddee diisoo nag loolu moo lay gën a wanati am solo goo xam ne diisoo am na ko solo muy sottantey xalaat ndax sunu borom subhanahu wa taala ci turi yi nga xam ne daf koy wutal muy asma suwar turi alquran yi am na ci saar boo xam ni borom bi daf koo tuddee suuratu diisoo saaru diisoo saaru weccante xalaat suratu shura borom baa nga cay wax ni ah walladina stajabu li rabbihim aaya bi tàmbali fay loolu moom ci teen wala ci ci fii may waxee walladina stajabu li rabbihim wa aqamu salata wa amruhum shura baynahum borom xam-xam mu fassiroon dañuy wax ni aaya ba la nekkoon ci suratu ali imran maanaam aaya la boo xam ne dafay fee feeñal al amriya muy digle gi yàlla yi digle na nga diisoo kon kooku digle la waaye pour wan la ni la suura dafa war a nekk melokaanu jullit ñi moo tax bi mu yegsee ci suuratu suura nekkatul digle tey day def al ixbaariya mooy li ñuy wane ni kon lii nag mooy li war a am mooy wa amruhum suura baynahum bokk na ci seen i melokaan mooy ñoom seen i mbir kat lu gaarati dañu koy taaj fañ ko war a taaj diisoo ci ku nekk joxe ci sa xalaat kee siigatul amr la ki siigatul ixbaariya la fee dañ doon digle waaye fii nag digleetuñ waaye day war a ni kat bañ diglee ba nag kon jëfe gi war na am moo taxit bi mu amee melokaan ya mooy wa amruhum suura baynahum bokk na ci seeni mandarga suñu amoon ay xasaayis dañuy wax ni bokk na ci seeni xasaayis ñoom ñu gëm yàlla ñi mooy ñoom seeni mbir kat dañu koy diisoo wa mimma razaqnahum yunfiqun kon ñetti aaya yooyu wala ñetti saar yooyu ci ñetti aaya yooyu benn bu nekk junjut suura waaye dafa tudd baatab suura muy wa tashaawur ak wa shaawirum fil amr ak wa amruhum suura baynahum muy ñett yooyu te noonu rek la ñëwee ci alquran nag ñeent ci li nu jot a xam wallahu aalam amma bu ñu ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy fekk foofee baatab suura fees ca dell alimam ahmad génn na ci musnad ni ki noonu abdurazaq génn ci musannaf ibn ibn hibbaan génn ko ci sahiham ak ñeneen ñu dul ñoom ci xadis boo xam ne ñu ngi ko toxal jëlee ko ci abi hurayra mu ni maa raaytu ahadan akthara suura akthara mashuratan li ashaabihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra mu ni man day teguma bët teguma bët koo xam ni moo ëpp lu muy diisoog aw nitam baraw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daal kon mbir mu mës a ñëw mu nekk rek woote na yonent moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen kaay leen ñu diisoo kaay leen ñu weccante xalaat niki noonu imam abi daawud ak tirmisi yi génn nañ kii ci sunan kii ci sunan ñu jële ci yéen sa salaam mu ni al mustashiru muaanun wal mustashaaru mu'taman te xadis yi may wax yëpp incha allah jàppal nañu wér la maanaam ki nga xamante ni day sàkku diisoog mbokkum julitam kooke de kon war a dimbale la jox koy xalaat waaye ki ñuy diisool ki ñuy sàkku mu joxe xalaat day maanaam kooku de kun war a wóolu la war a doon foofu jàppal ndax boobu war naa bokk ci tànnin yi nga xam ne dañ koy tànnee ahlu suura muy ñi jàpp ni ñii de bu suuraa jotee ñoom ñoo war a ndax wax dëgg yàlla mbooloo mi mënuñu suuraa ji loolu mënul nekk xëy na ñu bari ci ñun foofu dañ koy def njuumte te dana feeñ ci kanam incha allah mooy mbir bu gaare rek ñu ne acca ñëpp nañ ñëw kaay leen ñu suuraa acca ku nekk na joxe xalaatam benn danañ yàq suñuy waxtu loo xam ni maanaam loolee ci islam ni mu organisé dépassé na noona ñaareel mooy am na ñoo xam ne islam daf leen di féetale toujours ci nañuy jëf di bàyyi ahlu suura ñoom ñuy ñuy ñuy suura yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne man islam jàngale woon na ko ca jamono ju yàgg ja ñaan mooy jamono ju tarda ja ci gisunu ñi nga xam ne ñoo ñu sànku ñi nee nañ jamono jooju mooy jamono ju tarda ja fekk jamono ju avancé jàngoo ko parce que yi ñuy soxla tey yëpp maanaam lijjanti woon nañ ko foofee ci dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu yonent bi saa sallam keroog bi aaya bi wàccee mooy bi ma la junj sànq fa ida azamta fa tawakkal ala allah benn bis dañ ko laaj ni ko waaw lan mooy al azm googu soo dogoon na nga wàkkilu ci yàlla mu ni musawaratu ahlu ra'yi wa summa ittibaahu loolu al imaamu suyuti mi ngi koy junj ci abdurul manthur maanaam su fekkente ni dañ lay firil baatab dogu ci anam gu gën a tënku dañ lay wax ni mooy daal boo demee ba diisoog ña nga xam ne ñoom nga war a diisool ñépp te nekk ñu am ay xel nga doyloo seen xel nga daal di topp loolee rek wàkkiilu ci sa borom mu ni loolu moom mooy azm mooy dogu ndax yàlla mu ni wa shawirum fil amr diisool ak ñoom waaye soo noppee nag fa isa azamta boo dogoo nag ci def mbir mi nag fa tawakkal allah boobu nag wàkkiilu ci yàlla ginnaaw boo xam jaar nga fa nga war a jaar ba noppi yooyu ay junj la ak yonent bi yàlla bi li muy wax sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni tànnaloo na yàlla subhanahu wa taala maanaam du réccu waaye képp koo xam ne diisoo nag ay mbokki jullitam kooku du perte loolu tamit ay xadis la yépp ay mbir la yoo xam ni xadis yu bare bare rot na ci yoo xam ne ma ne su ko tudd ci ala hadihi al ujala kon yooyu ak ayat yi ma tudd ay junj la yoo xam ne yuñ doon seppi la rek ci alquran ak sunna yonent bi nga xam ni ñooy ñaari masdar yu njëkk yi nga xam ne ñooy source yi gën a màgg ci source yi jullit di tibbee maanaam nii la indee suura kon jox na ko gëdd lool moo xam ci biir jullit ñi la moo xam ca xisas ya nga xam dañ koy nit li mu nekk yàggoon lool suñu xoolee kon assuura fi ahdi nubuwa wala boog fi ahdi alquruni althalaatha almufaddala nga xam ni day ëmb lu gën a yaatu suura muy diisoo ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak dundam alxulafa al arbaa kibaaru saxaaba ni ki noonu xurun salaat al mufadala nga xamante ni moom alxayriya yonent moo leen ko seedeel sallallahu alayhi wa sallam ñoom nan lañ doon dundee lii di suura suñu xoolee danañ gis ni yonent bi moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom moo ko digal nay diisoo diisoo googu nag bu mu tekki ni bul defee ni maanaam mooy bépp mbir bu gaar concerné jullit ñi yépp rek nañ ci diisoo la déedéet waaye mbiru vie privée moom yonent bi nga xam ne lii kat xususiyaam la ca mbiru boppam la mbiru biir këram la ba ci mbir ay soxnaam sax daf ci daan diisoo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam suñu ñëwee ci dundinu boppam nga xam ne moo gën a fasu moom da ci doon diisoo sallallahu alayhi wa sallam kooku mën na la ca jox ay amsila bokk na ca keroog joojee nga xam ni tuuma ju rëy jooji tege woon na ci kaw soxnaam su baax soosee nday Aïcha radiallahu anha te ñu xamoon xisaam te ñu koy waxtaanee lu bari tuuma jooju ñu ko tuumaaloon daa njaaloo woon ak Safwaan te mu nekk tuuma joo xam ne sunu borom subhanahu wa taala seetaan ci ab yonenteem nag seetaan goo xam ni gu am solo la ba tax ñépp xam ni kon ndeke yonent bi xamut kumpa ndax su xamoon kumpa dana xam ba xam lii ñuy wax dëgg la wala déet ah sunu borom téye wax yu gi ab diir te mënoon koo wàcc ci saasa mbir mi daal di leer defu ko ah sunu borom lëndëmal mbir yi ak yonent bi nga xam ni mën naa toog fii te naan xare ba bañ àggee kee deena kee deena te booba ay dara lu ñu mën a caméra amagul woon ha kon nag moo lay wan ni kon mbir yi kat du mbiri kenn waaye mbiri sunu borom la nag sunu borom téye wax yu gi ab diir yonent bi jaaxle lool dem ba daanaka jaxasoo dund rek sallallahu alayhi wa sallam ba foo ko fekk nga xool ko sax da ngay xam ni kii mi ngi ci ay jafe-jafe ndax jaaxle na alquran wàccut jibril ñëwul ah léegi lan moo fi sës mooy diisoo yonente bi ci la commencé woo saxaaba yi kenn par kenn xam ngeen woowoon na usaama xam ngeen woowoon na ali ibn abi talib xam ngeen ni woowoon na ñenn ci kibaaru saxaaba xam ngeen ni woowoon na soxnaam soosu nga xam ne moom mooy zaynab bint jahshin ila axiri ma hunalik ay nit yu bari yoo xam ne boo jàngee séer da ngay gis ni kenn ku ci nekk yonente bi wéet naak yow diisoog yow mbir mi lan moo ci sa xalaat gis nga ba mu wooyee Ali ibn Abi Talib ci sa xalaat Ali ibn Abi Talib moom la mu ko waxoon mooy maanaam yonent bi daal kii jigéen kese la bu fekkente ni mbir mi nar na laa sonalee parce que nga takk beneen jigéen mu jeex te it sax mën ngaa laaj ndaw si ci kër gi muy seen jigéen jooju ne woon ca kër ga doon fa nekk mën naa koo tuddee ab surga bu jigéen ci kër ga muy Barira ci lenn ci waxi borom xam-xam yi ah Usaama ba ko yonent bi laajoon da ni ko yonent bi xam nga ni sa waa kër la te sa waa kër yaa ñu gën a xam sa waa kër su fekkee ñun ñi nga xam ne yaa ñu gën a xam sa waa kër ñun xam nañ ne sa waa kër lu bon du ñu ko def kon xam nga ni kat sa waa kër ñu set wecc lañ wax ji bu ko gëm wujjëw Aïcha bañ ko laajoon la mu wax muy Zeynab yonent yàlla bi daal fexeel ba nga sàmmal ma sama nopp ak sama dégg man Aïcha xamaluma ko lu baax lu dul lu baax xamaluma Aïcha lu dul lu baax gis nga yonent bi commencé di diisoo di laaj kibaaru saxaaba ak ñi ko gënoon a jege kenn ku ci nekk mu diisoo ak moom ci mbir moo xam ni mbiram boppam la ci mbir moo xam ni mbiram boppam la am na jëmi ci mbir mu gën a yaatu nag moo xam ni ci ci suñ daan waaj a xare yonent bi doon na woo saxaaba yi diisoo ak ñoom te ndax am na xare bu ñu xam te ngeen mën koo wax mu nekk xare bu ñu reconnaître ni bii jullit ñee ko xeexoon lu dul danañ la mën a wax ni la balaa ñu koo def diisoo nañ yaakaar ne amul benn xare bu ñu am xanaa mu bette lool ba bett gi ëpp te bette bette lu mu mës a am rek yonent bi daana woo ñi ko gën a jege ku mel ni Abubakar ak Omar ndax xam ngeen ñëw na ci xadis bu wér yonent yàlla saa sallam doon wax Abubakar ak Omar na la yéen ñaar ñi de lépp lu ngeen déggooti te fekk loolee ci ab diisoo ngeen ko jëlee loola man du ma wuuteeg yéen lépp loo xam ne dëppoo ngeen ci yéen ñaar nga xam ne ñoom ñaar ñu ko jege woon lañ sallallahu alayhi wa sallam maanaam lu ngeen di dëppoo te te fekk ci diisoo la jóge rek yéen ñaar ñu ngi dëppoondoo ci man man na maa jël loola man yonent bi jëfe ko lu mu bette bette bette bette daana woo Abubakar ci pet wala Omar ci pet laaj ko lan moo ci sa xalaat waaye xam ngeen ni xeex yi kon noonu la niki noonu même jëmmi jug dem ca xeex ba dañ ko daan diisool waaye même bu ñu demoon ba taxaw ci terrain xeexukaay ba balaa ñoo départ am na beneen diisoo bu bokkul ak diisoo ba ñu jugoon loolu daf daan am ci xare yi ku dem ci seer yi xam li may wax niki noonu suñu masaan a jàpp ay jaam ay nit yoo xam ne ñeen jàppee ci guerre bi ñooñee dañ daan diisoo nañ leen doon def xam ngeen ni usaara badr nekkuñ lu ñu sori lool ñun jàppe woon badar ba diisoo ga amoon ñi naan nañ leen def nii kii naan nañ leen rey kii naan nañ leen séddale ku nekk rey sa mbokk ki ku nekk am looy wax ba alquran ñëw wàccee ab aaya ci suratul anfal di letti usaara asaara yi nan lañ leen di def ak yu baree bari yoo xamante ni maanaam buñ ko toppoon dana yaatu lool suñu jëloon misaal ke gazwati badr mu nekk gazwa boo xam ni buñ nee badr moom ñëpp dégg nañ ko xam nañ gazwati badr loo gàtt-gàtt alu am na bokk loo cof soo mos a dégg ci xeexu xeexu badr na meloon nit la xeex ba taxu ñoo jóg waaye ba badr gaaree yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam doon topp yéefar yi ci koj leen far ñu raw ko ah booba nag yàlla dig leen ihda taifatayn maanaam mbir mi moom dana am di ngeen nangu seeni marchandise mu nekk màng wala boog di ngeen xeex ak ñoom te di ngeen leen gañe insha allah ah ba loola amee nañ jàpp ne comme raw nañ ñu kon xeex ak ñoom war naa mën a am yonent bi diisoog saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ci la Abubakar Siddiq bañ leen laajee xalaat saxaaba yi commencé ku ne joxe sa xalaat Abubakar jug wax wax ju rafet wax ju kontaan loo yonente saa sallam Xubaab ibn al Munzir ibn al Jamuux dal di jóg mu ne yonente yàlla bi nun day ñu ngi lay xamal ni ci sa ginnaaw rek lan topp nag li nu wérte wóor nu mooy foo dugg ak ñun bu dem xunt bu dem ab géej nga xuus bu dee foo mën a jaar ak lu mu ruqi ruqi ak lu mu jafe-jafe jaar bu yeboo sam xel na dal te nga xam ne ñun dun la wax la waa banu israila waxoon muusa nan ko idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna hahuna qaaidun déedéet waaye ñun de foo xuus ak ñun xeex danañ xuus ak yow xeex yonent bi dollee ko kontante ca kontante gam amoon ca waxu abu bakar niki noonu saxaaba yi kenn ku ci nekk joxe xalaatam ba ñu toppee loola loolu mooy ci tàmbali guerre bi bañ dikkee ba ca palaasu xeexukaay ba yonent bi gis benn place moo gis ni place bii kat bu porté la pour xeex ndax xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la woon waaye du woon ab yonent kese comme ni ñu koy waxee fii naan ab sëriñ kese nga xam sëriñ boo xam sëriñ la kese xamut leneen déedéet waaye yonent bi yonent la woon ak leneen ndax ku xamoon ak guerre la woon yonent bi taamu benn place ci xam gi mu xam ak nattal lay boppam ndeysaan saxaaba yi ñu yar woon lañ ak sunuy jëflanteeg seen kilifa surtout kilifa gu doy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba ñëw teewlootuma fii ma toog nan la tuddati waaye bi mu ñëwee mënu yonent bi waaw lii moom ndax xalaat la boo xam ni yaa ko xalaatal sa bopp wa illaa boog wax yu la gu bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala yonent bi ni ko déedéet dug wax yu de lii de sama gisunu bopp la mu ni ko man de boo ma joxee ndigal subhanallahi alazim xoolal mu ni boo ma joxee ndigal am naa be waxul am naa xalaat bu gën a rafet bii de waxul am naa xalaat bu gën bii waaye dane am naa beneen xalaat ma joxe ko ba xam te moo ne amaan na sax moom xamoon na ne xalaat boobu moo gën a porté bi parce que moom li muy wax xam na ko waaye loolu mooy orma diggante nit ak ki ko yilif ah yonent bi ndeysaan wax dëgg yàlla bokkul woon ak ñun nga xamante ni kilifa gi mooy joxe ay ordre rek amul kenn kuy wuuteeg moom donte lam joxe baaxul yonent mu ne ko bismillah mu ne ko nun daal bu ñu demoon ba ca teen bii nga xam ni badr ba badr jeex teen bee fi nekk xam ngeen badr du suuf saa tudd badr waaye teen la bu tuddoon badr suuf sa nekk ca teen ba xeex ba amee fa ñu tudd ko xaswatu badr mu ne ko dañuy dem ñu tabax mbalka tabax bu gaaw buñ ko tabaxee tabax bu gaaw ñu root ci teen bi ba mu fees mbalka mi ba mu wóor ñu ne lii kat lu geer bi yàgg-yàgg danañ ko mën di naan ñu sakk teen ba buñ sakkee teen bi taxaw na kampe ca gannaaw nga xam ni ñoom bu ñu nekkee danañ leen wër ndomba ba duñ fa am fuñ mën a naanee ji ñoom mar wi dana leen rey te ñun dinañ am luñ naanee loolu benn point la pour xeex yonent bi xam ni lii waa ji wax moo gën a porte bi mu tànnoon yonent bi daal di jël loolu te loolu mi ngi balloo ci wàllu suura niki noonu boo ñëwee ci xasootu Uhud te ngeen xam ngeen te échec bu mag boobu amoon ca te it nag balaa ñu cee jàll ñu mën cee génne ay jàngale xam ngeen ne yonent yàlla bi saa salaam keroog ba Badar teewee ah mu yëg ni bii yoon moom nekkul ni ñun ñoo jug di dem waaye bii yoon moom suñuy noonu la ñu yëg gis ngeen kon maam nekkul ni stratégie bi ñu jëfe woon fii rek moom la ñuy jëfewaat fee parce que bii ak bee bokkul bii ñun ñoo jugoon doon dem far xeex daal di am foofa bii nag ñun ñoo toog yëg ni suñuy doon ñu ngi ñëw yonent bi diisoog saxaaba yi kenn ku nekk di joxe xalaatam ah bi loolu amee yenn saxaaba yi ñu ni ñoom daal te foofu ca ñooña ca la yonent bi faroon mooy nañu toog ki dëkk bi comme biir duqluqaati dëkk beeg làqu-làqu yi ñoo ko gën a xam ndax ahlu makkata adra bi shaabiha kama yuqaal waa makka ñoo gën a xam ruqruq ak mbedd ya ah ña dëkk ca dëkk ba ñoo gën a xam rawukaay ya ca dëkk ba buñ njëkkee ñu jéem a xeex ak ñoom foofu am ñeneen ñoo xam ni ñoom badr fekkeewuñ ko woon te comme ngëneel ya saxaaba ya amoon badr bëggoon nañ koo dab dabaatal ñoom ñu gis ni toog ci dëkk bi daal dafay simple ba mu ëpp il faut ñu ngàdd suñuy jaasi génn dem xeexi léegi ñoom foofu am na benn jàngale bu sew boo xam dinaa ko ci bombaale doo ko dem mooy maanaam suuraa nañuy bàyyi xel bu baax kenn ku ci am loo xam ni say intérêt yi maanaam nekkul intérêt mbooloom yépp waaye say intérêt yi bopp la da nga ciy bàyyi xel ci boo koy joxe gis na saxaaba yooyu ñoom gaa ñu baaxoon lañ bila shak ñu bëggoon yiw lañ ñu ragaloon yàlla lañ ñu ñuy setal lañ waaye nag ñoom it danoo amoon ay intérêt yu nekkoon ci ñoom te intérêt yu intérêt yu amee tiyaabal nag intérêt yu baax xam nga dafa am intérêt yu baax intérêt yu bon yii nag intérêt yoo xam pour ñoom la waaye yu baax la mooy ñoom tiyaaba yi leen ñee rawee ca Badr bëggoon nañ koo dab dabaatal moo tax ñu topp seen gisin boobu rek di ko dëgëral position boobu ngir rek nañu dem ngir daal nañu dem rek génn nañ génn kon ndekete lekk-lekk ndeke suuraa danañ ko def ba pare ñu exécuter loola lañ defoon échec am ca te fekk li ñu ko teg mooy ñi doon génne seeni xalaat am na ci ñoo xam ni maanaam ñoom ñi ngi doon séddale seeni intérêt loolu lañ ci bàyyi xel loolu danay faral di am tax na ba yonent bi joxe xalaatam saxaaba yi joxe seen xalaat ñee joxe seen xalaat bañ demee ba ci biir ñu gis ni ah dafa mel ni daal nañ leen génn moo commencé gën a dëgër gën a bari ay wax ñee gën a sax ci seen position ah yonent bi ne leen man day wax dëgg yàlla bii mooy sama xalaat ah waaye nañ leen dem benn si magum saxaaba mu xam ni kat yonent bi nañ leen demam gii nañ leen dem ak ñàkkum pexe la ak bañ a wuuteeg ay saxaabam waaye giseewut noonu ah gars yi doo ko commencé waa kon léegi nañ toog yonent bi ni déedéet solul naa ba pare te yellul ci yonent bu xasee sol mbubbam geeram ak ngàbbu jaase muy summeekuwaat lu dul yàlla daa dogal la muy dogal kon génn jot na foofa la amee ay saxaaba yu commencé am déception xam ni xeex bi dana doy waar foofu am na saxaaba yoo xam ñu ñawan lañ bañ gisee génnin bi ñu génn rek commencé nañu am tuuti tiitaange ndax niñ génnee maanaam diisoo bi ballulul loo xamante ni moo doonoon lu dëgër lu mën a dalum xel bañ topp ko loolu amut ànd ak nag jiitu dogalu sunu borom bañ demee badar dañoo bañ demee oxut dañoo échec bokk na ca échec boobu la leen ko yóbbee mooy ginnaaw bu ñu diisoo ba noppi ba gis ni génn dong nga ci des dafa jaadu bu ñu diisootee ba pare lañ wax ni diw defal nangam diw defal nangam kenn ku ci nekk na nga fexe ba sàmm ñaari mbir mooy na nga def lañ la def loo te bañ kaa weesu te it nag lañ la def loo bul ko sàggane na nga ko def maanaam lañ la def loo na nga ko def te it boo ko defee na nga ca yam ñaari mbir yii li ëpp ci luy yàqu ci suuraa moo koy yàq ndax mën nañoo suuraa xalaat yi dafa waaye bu ñu génnee pour wàcce ko ci terrain mu yàqu fekk li ñu ko yóbbee mooy nit daa def luñ ko santut wala boog ba mu defee lan ko sant da caa yokk lu ca bokkul yent bi taxaw la na saxaaba ya ca kaw montagne ba ni leen bu ngeen gisoon ay picc ñëw di ñu yenu sax yéen seen yoon néew ci taxaw leen foofa wax dëgg yàlla lii leer na lii moom lu leer la xam nga taxaw leen foofu rek dafa simple bu ñu demee ba gis ni jullit ñaa ngi nangam nangam lu metti metti boobaa mën nañ ah nañ wàcc comme dañoo waxoon taxaw leen foofu xëy na gisinam la woon waaye taxaw leen foofu lu xeex bi metti metti bu ñu doon yenu sax bu leen ñëw loolu kay li leer la buñ leen gisee ñu yenu buñ dem buñ nee lu tax ñëw leen ñu ne yonente bi yaa ñu waxoon bu ñu yenu bu leen ñëw waaye foofu yépp àgguñu fa la am mooy ba ñu gisee gars yi commencé séddale màng ma jullit ñi gañe nañ bu ñu wàccul léegi affaire yi daal di jeex ay intérêt commencé duggaat ay intérêt commencé duggaat ndax wàcc ga la ko waral la waral ñu juuyoog suuraaga mooy kenn ku ci nekk daa gis ni kat màng ma ñu ngi koy séddoo te it mën naa am bu ñu demut la ci gën a baax dana jeex kon nañ daal di wàcc wàcc nañ suuraa ngir bànneex yoo xam ni mbiru mbiru intérêt yi nit ki la donte nag saxaaba yi ñu baax lañ ndax loolu bu mu tax mukk nga ŋàññi leen kulluhum udul yàlla seedeel na leen ak ngërmande ñaareel moo yonent bi seedeel na leen ak ngërmande waa badar yonent yàlla bi newoon na bu leen kenn xas ndax kan moo leen wax ne yàlla sëpp na leen leen baal naa leen seeni bàkkaar lii dañ koy wax ci buntëb bëgg a jàng waaye du buntëb tuutal kenn ci saxaaba yi ndax kuy tuutal saxaaba yi ku nekk daañ futteeku xeex ak yow buñ ko mënee waaye danañ ci bëgg a génne ay darsu kon loolu la woon su ko defee échec boobu la ko waral mooy suuraa nañ ba noppi waaye tënkuñ lu war a tax ñu war a mën a jóg ca suuraa ba échec am na foofa ca biir suuraa ba waaye bañ génnee tamit lañ santaane woon am na ñu ko ñàkk a matal tax na ca lañ leen amee échec bu rëy bañ jugee nag moo tax borom xam-xam ñoo xam dañuy waxtaanee lu jëm ci njariñ yiñ mën a jàngee ci xasootu badr bokk na ca mooy ndekki mbir balaañ ca jug nañu diisoo te bu ñu diisootee nañ topp la ñu diisoowee te it nag njiit kenn du ko mooy fii ak ma ngay topp yàlla subhanahu wa taala nga jàll sulxul xudaybiya kere bi ko yonent bi def wala xandax mu jiitu sulxul ndax xandax mi ngi nekkoon sanat xams kee nekk sanat sit ci atum juróomeel bi def nañ lu ñuy tuddee xandax maanaam yéefar yi mooy ahzab boole woo ak seeni noon nekk mbooloo moo xam ni arme yu am doole lañ ah ba ko julli ñu yégee nag ak jaaxle dikkal leen lool nag ndax mii mbooloo kat mësuñoo dajeeg mbooloo mu ni mel demal ci suratul ahzab borom baa nga ko fay nettali mbooloo moomu jullit ñi néew na luñ mas a dajeek mbooloo mu réyee noonu sit na ci seen tàmbalee xeex ak seeni noonu waaye ba loolu amee yonent bi dajale saxaaba yi ni leen kaay leen nu diisoo xoolal ba léegi pour wan la yonent bi sax ci dundam da doon diisoo ah ba leen yonent bi wooyee kaay leen ñu diisoo saxaaba yi ñëw ñu daje ñu waxtaan kenn ku nekk kii naan nañ def nii kii naan nañ def ne salmanul farisi dal di jóg ba mu jógee mu ni ñun day am nañ benn xalaat boo xam ne ba ma joxoon ndigal yonent bi danaa ko joxe mu ne ko mooy ban mu ne ko nun day fële ca perse fañ dëkkoon bokk na ci suñ daan xeex ak suñuy noon yuñ jàpp ni gën jàkkaarloog ñoom du sotti wala ñu ñu ëpp doole dañuy seet dëkk boo xam ni mën nañ koo gas wëral ko ñu gas ko lu ñuy tuddee al ay xandaq ay kàmb yu xóoti rëy kàmb yoo xam ni fas mënu koo tëb te ku ca joggi tàbbi ci biir da nga faatu mbaa ay fett rey la fa su ko defee ñoom bu ñu dikkee duñ fa mën a dugg yonent bi ni yeneen saxaaba yi est-ce que loolu mën nañ ko def ci Médine ndax loolu saxaaba yi ñoo gën a xam Salman Médine ndax Salman yàggagul ci Médine lool ah ba loolu amee saxaaba yi ni waaw waaw ndax Médine am na côté boo xam ne ay montagne la te foofa kenn mënu faa jaar kon foofu ñoŋe na am na côté boo xam ne du ay montagne kon mën nañ koo wër ñu gas ko yonent bi ci lañ dal di jëfandikoo xalaat boobu ca la ndam dikkee ci ndi kàttanu sunu borom yàlla subhanahu wa taala te benn saxaaba moo ko génne ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki nun sulxul xudaybiya nga xam ne moo ci topp sanad sit atum juróom benneel ba boo ñëwee da ngay fekk ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog joojee mu dikkoon doon omra ji mu dem ba yëg ni ca yoon bi kat yéefar yaa ngi taxaw baare ko du dugg màkk léegi lan lay def yonent mu ni saxaaba yi yësal leen seen giléem ñu taxaw mu ne nañ leen diisoo ah waa léegi nu ñuy def Abubakar Siddiq mu njëkk a joxe xalaat kon li ma doon wax sànq mi ngi boo firndelu wane ne lu mu jamp jamp jamp rek yonent bi Abubakar mi ngi koy jege ndax mooy thaanis nayni fi jamii al umur wala fi akthar min amr mu laaj Abubakar luy sa xalaat Abubakar mu ne ko ñun day omra moo ñu taxaw na jóg wax dëgg yàlla xeex ak kenn taxuñoo jóg kon nañ ànd ak jàmm fii ak ñu ngi gis ko indiwul jàmm su fekkee ànd nañu ak jàmm ñoom ñu indi jàmm xayrun bu ñu indiwul jàmm nag ñun ñu jàmmaar na ñoom xeex ak ñoom ah ba loolu amee yonent bi jëfandikoo jëlul ñu laajaat keneen xalaat boobu bu rafet la ñu daal di koy jël jëlul seetaat keneen waaye bañ demee ba ca biiraat nag ba ca biiraat nga xam ni saxaaba yi nag mer dikkal na leen ndax xamuñu woon loolu waa ji ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di siñanteeg moom ay pacte yoo xam ni kenn xamuñu yu penku la wala yu saw ñoom xamuñu waaye yonent bi moom xam na ah bindal bismillahi rahmaani rahim ne lii kat kenn du ko fi bind min muhammadin rasulillah mu ne suñ gëmoon ne rasulillah nga xam nga dañ fi nekk naan dañuy siñanti ay accord ak ay nangam bindal muhammad ibni abdillah ah foofu nag saxaaba yu dëgër yi ku mel ni ñoomu omar omar nee na néew na bis mu sikk sàkk waaye keroog moom daa mel ni damaa am doon sikk sàkk sax ndax yonent bi yàllaa ko yónne wala déet ba dem na ci abubakar di ko déey loolu waaye ndaysaan abubakar ndaysaan ku mosoon a dal la te siiraam sax noonu la boo delloo ci siiraam dañuy wax ku tuuti woon la ku rafetoon la ku ku yemoon la waaye ku teeyoon la ci mbir yépp ba ci ay waxam bi mu waxee loolu Abubakar Abubakar da koo jànni ndax Abubakar moom toujours rek xolam mi ngi gën a dal waaye lu tax yonent bi yi mu koy nangu ah bu fekkente ni ab yéefar tuub si na ñëw yéen mën ngeen koo nangu si te jullit bu bàyyi koo ci ñun ñëw ci yéen tubbi ñun sañu ñu ko jël si loolu mooy lan loolu kenn daa xam mooy lan ay mbir yoo xam ne daanaka ci gisunu kaw wax dëgg yàlla ñoom waaye yonent moom xamoon na ndax yonent bi xamoon na ne sallallahu alayhi wasallam ku xës ba tuub fële ak iman ni muy ñoralee ab xol di ko tàggat di ko caw ba nit ki foo ko mën ci dugal iman jooje moo koy yóbbu ma ne bu tuuboon ñu andi ko bu ñu ko delloowaat iman jamam am na ba pare yàgg yàgg dana dellusiwaat loolu la yonent bi xamoon kooku benn la ñaareel mooy ki tubbi dem ki tubbi dem néew na nit lu muy tubbi dem rek ba ngëm yàllaam fay lu dul yàlla subhanahu wa ta'ala mën na koo alak ca loola ko ko jërul di sonne te it nag loola bariwut lu muy am ndax yonent bi yar na saxaaba yi yar goo xam ne ci jamonoom moom tiituloon tubbi googee bu amee ñu ko defit ñu néew lañu woon kon yii yonent bi xamoon na ko ak yaa nga xam ne borom baa ngi koy tuddi suuratul fatxi ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم بآية جيخ أي إشارات يبري القرآن ديكو جنجو waaye daal ba loolu amee nag saxaaba yi nag am na ci ñoo xam ne dëgg dëgg seen xol neexut ndax ñoom gisuñu woon loolu yonent bi ni waa kon léegi demee na ni léegi seen gàtt yi ngeen indi woon rey leen ko ñu daal di locc rek watu ñibbi saxaaba yi lànk duñu rey duñu watu li awwali marra yonent yàlla bi digal saxaaba yi ñu lànk man natiija lu ci topp mooy dafay jaaxle ndax kilifa gu doy ni moom qaayid bu doy ni moom nga xam ne yàlla moo ko yónni saxaaba yi nañ ko déggale woon ku dem bay jël say toflit di ko diwoo ku dem bay jël sa kawar di ko barkeeloo ah ku dem ba nangam te loolu mu nekk ci ay xusuusiyaatam nag nañ ciy bàyyi xel di ko ci boole wala am na ci solo balaa kenn jël loolu def ko dalil ci keneen loolu lépp ñu di ko def ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen def leen ñu ni duñ def yonent bi danaan wax diw fekk ma ngay sangu ma ni musul yéreem ñëw bàyyi sangu ma laa wax loolu danaan am ah yonent bi jaaxle bi mu jaaxlee boobu mu daal di dugg biir néegam ba mu duggee néegam fekk keroog mi ngi àndoon ak ummu salama mu nekk soxna soo xam ni ku teey la ku dal la te it nag mag la mu dem ba dikk xam lu bari ah lan moo nekkoon yonent bi ah yéen da ngeen may fontoo lu tax ma digal leen defu leen di jaay affaire commande yooyu déedéet defu ko waaye ummu salama dane ko yow daal gis nga ñii seen xol a naqari rek waaye weddi wuñ la de ñi dañoo am lu leen mette lépp bëgg mbaax moo leen ko yóbbee kon bu leen ko jàppee allahu akbar lii su fekkee am na yonent bi jëfe xalaatu jigéen bi ndax yéen ñi xamul dara ci ilmul xadis seen xel dana nangu ñi naan yonent yàlla bi moo wax jigéen ñi bu ngeen diisoo ak ñoom ba pare la ñu wax sànni leen ko fële bu ko kenn jël loolu am na ñu koy wax naan xadis la loolu moom ku man lahu adna shay fi ilmi alxadis war naa xam ni wax dëgg yàlla moom hada alqawlu marjuux daif mawdu sax laa war a wax diisoo de nag jigéen ñi bu ngeen paree mboolem lu jigéen ñi wax rek sànni leen shaawiruhunna wa xaalifuhunna loolu loolu du ay wax ba loola amee yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël waxi ummu salama mu ne ko nu may def kon mu ne ko gis nga ñii ñoom ñooy jaay dañoo mer waaye bu ñu yëgoon ni yow yaa mer léegi tey ñu topp la loolooy lan mu ne ko da ngay génn rek nga fexe fa ngay watoo mu nekk fu kawe ba gaa yi di la gis ñu xam ne yaa ngi wattu nga rey nga dem sa yoon bul wax ak kenn dara yonent bi génn loj watu ah tëj kanamam rek dem saxaaba yi rek tiit defe naa yonent bi mer na tey bu meree yàlla wàcc musiba watante gi mel ni maahu naa lig am na ay saxaaba yoo xam ne keroog dagg nañ seen bopp morom ndax wat gu gaaw ndax dañ ne yonent bi daa mer sallallahu alayhi wa sallam gis nga xoolal lu simple lii mbir mu gaaw problème bi daal di régler jigéen a ko joxe ci loo xam ni xëtër xëtër amu ci jaay doole amu ci gëdd kenn amu ci lu simple la jug dem watu pare tëj sa kanam dem ñu defee ne dafa mer fekk merut pexe la rek inna kaydakunna azim comme ni ko borom bi waxee kon gis nga loolu su ma ko doon topp defe naa danaa guddal wax te du ma yegg si sax ci li ñu tax a jóg yooyu noonu nga koy toppee toppal ko sa bopp ci xissa boo dem ci xew rek ci taarix boo demee ci siyar da ngay fekk ay mbir yu ñu fa mën a jële kon daal loolu ci doxal na yéen sasam ci dundam wa kadalika ba fi yonent bi jógee sallallahu alayhi wasallam ndax dañ koy suul ak duñ ko suul ndax dañ koy sang ci kaw yére yi wala dañ koy summi yéreem doog koy sang xam ngeen loolu lépp ay coow la juróon gis nga ndax dinañ ko wuutoog duñ ko wuut ndax yonent bi kenn mën na kaa wuutu donte aboubacar la loolu xam nga am na saxaaba yu ko doon wax ah ba nañ def ba fal Abubakar saxiifata ba di saayida xam ngeen lépp ay mbir la yoo xam ci diisoo la juddoo woon ba musiba naroon a am waa muhaajirin naroon a fal kenn waa ansaari naroon a fal kenn ñii naan minna amirun minkum amir ñun dañuy fal yéen da ngeen di fal mbir mi nar a jur ay coow waaye ba saxaaba ya mag ya jógee ñoom Omar ak Abubakar Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrah ak ñeneen ñi nga xam ni maanaam ay mag lañu woon ca jamono joojee ñu daal di jóg ndànk-ndànk bañ jógee daal di dem waxtaan ak. ña nga xamante ni ñoom ñoo opposé wu ñu bari te fekk lépp gëlëma leen ko yóbbee rek waxtaan diisoo xamlante junj ay junj yee yonent bi doon wax ndaw si boo fi ñëwee fekkoo ma fi di nga fekk Abu Bakar loolu ishaara la su ma amoon buntu bu may tëj danaa tëj buntu ñëpp ba mu des Abu Bakrin ku ma demasal defal teraanga fay naa la mu des Abu Bakar mënuma koo fay bàyyi naa ko ak yàlla ishaaraat qawiya yoo xam ne yonent bi kon joxoon na Abu Bakar makaan saanis nay ni isuma fil fil gaar ak yu bari yoo xam ne bañ ko joxee nag dëgg dëgg saxaaba yi xam nañ ni kat ndekete Abubakar ñii kat moo ko yeyoo ñu bari dañuy wax Ali ibn Abi Talib jaayantewuloon diw jaayantewuloon ay waxi kese la waaye dama ni la même bu fekkonte ni ay jafe-jafe ak ñàkk déggoo amoon na ci tàmbale bi Ali ku iqraaroon la xilaaf ak Abubakrin ndax bokk na ci ay waxam buñ ko mësaan a laaj ak Abubakar ku gën mu ni Abubakar du sama morom moo ma gën fuuf kon kay wax loolu xam nga ni weet weesu na iqrar ak xilaafaam ak yu bare bari yoo xam ne ay waxam la yoo xam ni ñiy wax ni àndu ca woon moom diisoo lu àndu ca woon ba ni mu faatoo àndu ci xilaaf Abubakar loolu ay wax laa ki tuumaal waaye Ali jomb na loola kon daal noonu ba ci ba Abubakar faatoo saxaaba yi diisoo waat ca lañ fa fal Omar wa kadalik waka ila axir ma hunalik maanaam daal kon dama la bëgg a wax ne ci xurunu salaatal mufaddala ñooñu saxaaba yak taabiun ya ñoom bokkoon na ci seeni doxalin mooy suuraa dañ koo joxoon gëdd bu rëy suuraa lu am solo la lu rëy la su ko defee kon su nekkente ni suuraa noonu la mel noonu la amee solo ak nii la ko jullit ñi doon dundee ñu njëkk ña bi laa shakk kon léegi nag ñun ñëpp suñuy xel war na daal di daje nag léegi ñu xam ni kon ndeke suuraa du mbir mu ndaw diisoo du lu du lu ñàkk solo diisoo ndekete nekkut li comme li li yi ngeen tuddee lii nécessité la dañuy wax ne yi ñuy tuddee ay nécessité sax yooyu du nécessité wala am na ci ci bari nekk ko li ko gën a nekk nag mooy shura mooy diisoo ndax ñoom daawuñu yëkkati benn mbir niki noonu comme ni ma doon junjee sànq xam ngeen ni ba ñuy dajale alquran noonu la ba ñuy def xurub ridda kadalik su ma ko doon topp defe naa waxtu wee jeex rek waaye damay jël boo jël jàll ca ba ca des bu ci nekk shura moo ca amoon te xam ngeen surtout jamono quran nga xam ne shura bu tar la sax bu métti lool nag ndax ñii gisuñu mukk ni alquran ji yonent bi dafi nekk muy wàcc yonent bi dajalewu ko ba mu mat yonent bi dajale ba jóge fi ñu koy dajale duñ ko def abubakarin siddiq loolu la waxoon waaye xam nga ba ñu diisoo waxtaan déggoo même zayd miñ ko sant moom dani man daal du ma ko def te boobu fekk na sax omar convaincre na abubakar ba pare waaye teewut ñuy continuer diisoo ba xel yépp dëppoo ànd ak dal ak teey ak tawfiq min rabbil alamin kon loolu moom mooy shura ci qurun thalathal mufaddala ñoom niñ ko doon dundee su ko defee kon foofu nag mën nañoo daal di dugg nag kon ci lubbul mawdoo muy xolob mawdoo bi mooy aadaabu shura teggin yi nga xam ne yooyu moom war nañoo am suñuy def shura ni ma laltaayee woon tomb bu njëkk bi noonu lay laytaayee tomb ak ñaareel bi mooy balaa maa dugg ci aadaabu shura tey nag duma la wax aadaabu dama wax min aadaabi shura lenn ci ay teggin ndax xamuma lépp man ñaareel bi moom mooy bu ma xamoon lépp lépp mënuma koo tudd waaye daal am na tomb yoo xam ne yii moom mënu caa ñàkk te yooyu ci teggini shura la bokk waaye foog mu am ak laltaay ba noppi laltaay gi mooy dañuy xam ni gëdd bi islaam jox shura ak yitte jim ko jox ak na ko saxaaba ya doon doxalee ci jamono yonent bi loolu ku am xel tekkiwul ni bu shura masaana jot yonent bi day woo ñëpp naa leen kaa leen ñu shura est ce que loolu moo feeñ ci li ma doon wax wala déet déedéet feeñu ci ndax dafa mel ni toujours suuraa yi ma la wax yépp dafa mel ni même personne yi doon répété wu rek ñooy répété waat ci suuraa yi ci des est-ce que loolu yéen a ngi ko doon seetlu wala déet la ko tàmbalee badr li ko tàmbalee ci dundu yonent bi dafa mel ni soo dee xool même bu ñu la ko waxut dafa am ci biir lu ñuy tuddee ahlu suuraa ñoo xam ni ñoom ñoo war def suuraa bis mu ne dafa mel ni ñiy répété wu daal toujours ñooy répété wu donte léeg-léeg ñu ne diw bokk na ci léeg-léeg jigéen dugg ca léeg nangam dugg ca waaye dafa mel ni daal am na ay nit yoo xam ne ñii ñoom suuraa ba ñu mas a def rek ñoom bokk nañ ca lu dul dañoo am gànt te it ñooñe nag kenn du ca ku ndaw loolu seetantal la beneen boo xam mën nañ ko cee jëleewaat donte saxaaba yi kenn du ku ndaw waaye gën nañoo rawante ay maratib niki noonu bu ñu xoolee ba léegi danañ gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa bu daan suuraa donte moo nekkoon jiit maanaam dafay nangoo bàyyi xalaatam ngir xalaatuñ ci des yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne mën naa feeñ ci yooyu ma doon leeral sànq su ko defee suuraa mën naa am ci ñaari façon façon bu njëkk bi moom mooy nit koo xam ni daa am lu ko gaar mu bëgg kum diisool mu dem diisoog moom wala daa am lu ko gaar mu bëgg ay nit comme mbokk mii ma dem diisoog moom diisoog mbokk diisoo loolu moom sama mbiru papa te diisoo du ma wombool naa ne kaay ñu diisoo mbir la mu gàtt ma joxe ci misaal lu ki mel ni benn waay boo xam ni dafa ubbi kantinam ah bi mu ko ubbee kat moom bëgg na kum ko jox waaye nag xelam dalul ndax amul expérience ci commerce deuxièmement diw mii mu ko bëgg a jox xamul ci moom ay jikko te it kii jege na ma kii jege na ma mbokk bee jege na ma ah ma dajale leen ni leen ma de damaa bëggoon bu ñu jullee timis tey ba pare ñu daje sama kër damaa bëggoon ñu diisoo ci mbir xam nga loolu lu simple la la ñu mën a tuddee istishaara su ko defee bu ñëwee ma ne ah man kat dama am ñaari mbir yu ma bëggoon ñu diisoo ko benn bi mooy damaa bëggoon ubbi cantine te marché sàngam ñaareel mooy diw sàngam mbokkum diw kat laa bëggoon jox ko ko te wax dëgg yàlla comme xel du doy ma woo leen ngir ñu waxtaan ci ba xam yéen lu ngeen ma ciy xelal gis nga loolu lu gàtt la lu fasu la su ko defee kii nii ah marché boobu de wax dëgg yàlla dox na ndax diw sàngam ma nga wala mu ne ah marché bu dama da dalul sama xel tee ngaa seet marché diw kon gis nga mbir yaa ngi commencé génn diw sàngam mi ñu koy jox ah wax dëgg yàlla kooku de jub lañ ko xamal ak mbaax kooku de nangam nangam loolu mooy diisoo ah man de wax dëgg yàlla daal tuumaalu ma ko de waaye daal mës naa jëflanteeg diw nangam nangam daal su ma sañoon daal nga gën a defaat ay leer sart la nag ci suuraa nit ki lam xam ci lu baax ak lim xam ci lu bon lépp bu mu ko nëbbu na ko wax foofu moo tax ma jiital tomb boobu lu ki mel ni ab góor boo xam ni daa gis ab jigéen ju mu bëgg bëgg koo takk mu woo comme mbokk yi ma woon di leen laaj xalaat wala jigéen joo xam ni gis na góor gu ko doy mu bëgg kookee moom mu dem labatal ko boppam ndax loolu sax la comme ni ñu koy waxee mbokk yi ci xawadis yi bari maanaam mu dem laaj ay mbokk moo xam ay góor la diisol moo xam ay jigéen la diisol ah diw sàngam de wax dëgg yàlla xemem naa ko ngir soxna wala boog xemem naa ko ngir borom kër damaa bëggoon ngeen xelal ma ci lu ngeen xam gis nga ki ñuy diisool ku ñu war a wóolu la gis ngeen xadis boobu ni mu porté ci place bi ndeke am na mbir yoo xam ni warul yëkkatiku di siiw comme bii nit ki doon su ma dikkee ci tomb yi teggi ni suuraa dinaa la wax ne bokk na ci mooy bu ñuy tànn dañuy tànn ñu wóor ndax am na yu war di génn ak yu dul génn kon ku ñuy diisool toujours ku ñu war a wóolu la ñu war a doon kon su ko defee bunt boobu ah diw sàngam loo ci xam bu fekkee dama caa xam lu mel ni la yonent bi xamoon ca waaja ma wax ko comme na ko yonent bi waxee bu dee diw lay labat de moom diw moom bu yeba nga seeti geneen góor ndax diw daal moom day dóor day dóor jigéen comme ni ko yonent bi waxee woon ummu sarik wa illaa mu ne ko diw daal moom amut dara xam naa du la mën a yore mbokk yi loolu dañ koy faral di sox di jaay ay affaire dund salaf ak yooyu jaax yi ñun ñëpp ñoo bëgg lu baax waaye nag nan bàyyi xel doxalinu yonent bi loolu xadis la amma abu jahm mu ni ko ah kooku de moom bu bokk bu la takkee moom day dóor jigéen kooku daal suma sañoon nga seet geneen góor muawiya mu ni ko kooku amul dara mënu laa yore yonent bi moo gën a xam ay saxaabaam moo leen gën a bëggal baax yërmande moo ko ëpp ci ñoom waaye xam na ni moo xam lam xam ba tax mu xam ni muawiya mënu koo yore mënu ko mënu laa yore ah ah su ko defee bu ñu nee diw amul dara wala nangam ñu ni waaw kii dëddu àddina kii nangam fekk du loolu dañoo xamul rek waaye bu ñu xamoon doxalin yonent bi danañ xam ne fii moo doonoon jaarukaay ba léegi nag jar na sax ma wax na ko ah diw ko dox dëgg yàlla jàppul ci dara yënguwul ci dara léegi situation ndaw si ndax laaj na ko yënguwul ci dara man koo yor wala déet kooku dafa jar a bàyyi xel yow yaa xii kii mi ngi feebar ñu ngi ko bëgg a génne ci maxraj ba bëgg ko wutal borom kër ay param mënuñu koo faj ñu bëgg ko wutal ku ko mën di jàppale ci feebaram bi ñu jox ko amul dara yaa xii loolu du xel amuñu xel buñ amoon xel kay ak mbokk mi lu mu baax baax baax nañ bàyyi ba mu am dara wala bokk mu jàpp ci dara wala ñu seetal ko am dara ndax dafa am xàll buñ bëgg a indi loolu muy diisoo bu ko defee buntu yu mel noonu léeg-léeg dañuy juum nga xam ni suñu suuraa yu bari bu ñu paree benn résultat ay échec yu bari ci am fekk fan waroon a jaar lan jaarut lan waroon wax lan waxut wa illaa bokk mbokk mi ñu laaj ma loo xam ci moom ma xam ci moomu safaan may jaay affaire sentiment ak rus naa koog bañ bu yégee ni maa wax nangam mu meram ak nangam nangam déedéet déedéet dama koy wax mbokk yi toujours ma ni leen bu yeboo ngeen di ko def ci man waaye ku ñëw ci man ni ma diw sàngam loo xam ci moom te la ma xam ci moom ay safaan la ca digg ba laay jaar du ma ci wàññi dara nag waaye danaa ko rafetal nag su ma koy wax du ma la rusal dara loolu mooy doxalinu yonente bi saa sallam te loolu mooy nag njariñal suuraa ah mbokk bi dox dëgg yàlla ku baax la ku bëgg sunna la sifaat sunna yépp wax dëgg yàlla ñu ngi koy gis ci moom moom daal léeg-léeg bu ñu jullee jàkka ja fajar sax fa lay toog ba yoor yoor jot te loolu wax dëgg yàlla man ko yombut moom day julli guddi day nangam nangam waaye moom dafa gaaw a mer gaaw a mer action bu ndaw lu mu am rek mu mer waaw nay egg buñ ne bu mer bi nan ko wax ndax ndaw si da ciy dugg ba pare ñu ni dañ maa trompé suñ ma waxoon lii duma ci dugg waaw ndaw si xool su fekkee mën naa accepter loolu alhamdulillah ki ñuy diisool ku ñu war a wóolu la bu génnee tamit nag na nekk ku wóor bu mu génn fii naan diw day diwa koy labar comme ni ko mbokk yi defee li tax ma jël misaal bi di ci insisté mooy léeg-léeg maanaam xawaadis yi ñuy dund di jël yoo xam ne dañ koy dañ koy jonjonte bis bu ne mooy gën a def jeexintal ñu jël leneen lox te lii dañ koy dund bis bu ne moo tax ma jël boobu gis waaye yeneen misaal a ngi fi kon noonu la demee ma wax loolu lépp ndaw si bu gisee ni ah moom daal gis na ni daal capacité am ak góor-góorloo moom jàpp nay daal gaaw a mer gii daal man mën naa koo dindi ci góor gi ma jàppale ko mu jàppale ma ci côté yi ma tane ay ca loolu mën naa nekk aywa mu daal di ciy dugg su gisee nag loolu dalulum xelam salaaman salaaman ku ne am foo jaar kon mi ngi noonu su ko defee kon noonu mooy istishaara muy diisoo gu ndaw goo xam mën nga ko def ak kenn mën nga ko def ak ñaar kenn ku nekk joxe ci xalaatam su ko defee mu nekk loo xamante ni lu ñuy respecté lu ñuy sàmm la ndax fa iza azamta fa tawakkal ala allah kon loolu mooy ci anam gu gën a gàtt anam gu gën a yaatu gi nag mooy loo xam dafa ëmbub liggéey te foog na su fekkee juma ndax man waxtaan bi ngeen ma koy sant defe naa leeru dara dara dara ci man dafa mel ni xaw moon ni sax li ngeen daje man xaw moon loolu dafa mel ni ab liggéey la boo xam ne ñoo ngi ko doon liggéey di def lu mel ni formation ci nit ñooñee ngir ñoom ñoo ŋànk liggéey bi te ñooy diisoo du noonu la am du noonu waaw kon noonu la kon su fekkee misaal bi dama koy joxe ci lu mel ni lii ngeen daje mu mel ni ay bopp comme ni ñu ko waxee ñoo fi nekk yoo xam ne ñoom danoo ŋànk liggéey kon liggéey bi du yëfi kenn nit yaakaar naa du ngeen war a suuraa woo kenn nit wala ñaari nit foog mbooloo ñëw waaye yaakaar naa ne université li fi nekk li muy bari bari bari tànnu leen ñëpp ndax ñi ngeen bàyyi woowu ñu leen da ngeen leen a xeeb déedéet ndax da ngeen di jàpp ne ñooñu amuñu xel déedéet waaye daa fekk ni lépp ñëpp mënuñu ko bokkandoo mi ngi noonu kon li am mooy dafa am ñu ñuy tuddee ahlu shura su doon ci atte yi islam bu islam bi dañuy tudd ahlul xall wala aqd gouvernement islam bu amoon ñu am ñoo xamante nii kat dañuy attewoo islam ah léegi nag lépp dagg loxo am na dóor njaalo am na nangam nangam am na léegi islam la ñuy attewoo ñoom gouvernement boo xam ne islam lay attewoo dafa am lu ñuy tuddee ahlul xalli wal aqd loolu sax moo gën a rëy ahlu shura ahlul xall wal aqd ñoo ñee kat ñooy ña nga xam ne lu mës a gaar lu nekk ñoom ñooy dem tëju ji comme ni ko ci gouvernement yi xawma ci man xawma ci lu bari waaye daal am na ñu ko cay def ñoo xam ni bu mbir gaaree ñoom ñooy tëju fa ñuy tëju càmbarante waxtaanante ba diisoo génne wasaare ko nit ñëpp daal di cay jot kon lu mel nii ab liggéey ab mbooloo moo xam ne jullit ñi dañ caa daje di liggéey comme mu mel ni seen misaal bi wa illaa boog moo xam ci collège la lycée la université la ci koñ la wala comme ni ko mbokk yi defee am nañ benn ay jeunes yu ne ci koñ bi di liggéey ñu am benn mbooloo fal kenn mu jiite ñu euh, defe naa yéen ba ñu leen loolu ba ñu leen fal kenn mu jiite ñu comme ni ko ñenn ñi bañee su ko defee loolu lépp bu amee am na lu ñuy tuddee ahlu shura ñooña dañ leen di tànn melokaan yii ma la bëgg a wax nag daa jaadu mu nekk ca ñooñe bala ñu leen a tànn waaw mi ngi noonu mbokk bi El Hadj Malick li ma koy xam-xam ak li ma koy rus rus rus su ma wóoree ni melokaan yii nekkut ci moom ci maandu teg islam waruñu koo dugal ci mbooloo mi man mii su fekkente ni ak lun ma ci lun ma wante jox cib cër te maa ngi fiy jàngee ci mbooloo mi te am nañu gis ci man melokaan yoo xam ne newul yi ci man jaaduwut ay sentiment di nu jàpp bañ ciy dugal ndax su boobaa wor nan yàlla warub yonenteem wor jullit ñañu wax dem leen ngeen xalaatal ma kon war nanoo càmbar bu baax mbooloo mi niy tànn tuddee leen ahlu sura wala aqd ñun ñu tànnee leen lee ñoom ñañ tànn tamit nañ fexe sàmm ci seen bopp lële ca ginnaaw li may nar a wax yooye su amee jàpp naa ni yàlla subhanahu wa taala danañu dimbali insha allah ndax du teggi yërmandeem ci kaw mbooloo surtout mbooloom dëgg moo xam ni mbaax moo leen yitteel kon bunt boobu li jëkk ñu war koo xam balaa ñu indi melokaan yi ñuy tànnee mooy mboolem ñiy suura ñiñ tànn tuddee leen ahlul xall wala aqd wala ñu tuddee leen ahlul suura bokk na ci liñ war a njëkk a fat ci seen bopp mooy ndeke yàlla subhanahu wa taala ci xereñam dafa doxal ni nit ñi tolloowuñu ay xel tolloowuñu ay xalaat loolu loo war a gëm la avant tout da ngay gëm nit ñi kat tolloowuñu xel tolloowuñu ñuy xalaatee tolloowuñu xam-xam tolloowuñu capacité mën a xóotali xalaat yooyu yépp boo ko fasee ba pare da lay dimbali ndax da ngay gis koo xamante ni lu ñàkk solo moo ko tax a mer ah benn waay génn ci suuraa bi loo xam da ngay jàpp ne lii kenn waru ko woon a wax fekk kooku bu ko meree déedéet foofu la xelam toll bàyyil ko loolu foofu la xelam toll ku nekk fa sa xel toll waxeel foofu boo istixfaaf kenn kon loolu bu ñu ko bàyyee xel ci mbir yu ndaw yeeg mbir yu mag yi mbir yi concerne diine ak yi concerne dunduk àddina yépp a ci bokk yam maanaam nit ñi tolloowuñ ci nu nuy xalaatee loolu li ko waral nag mooy yàlla dafa def nit ñi daf leen a jox xel te seen yaatuwaayu xel tolloowul seen yaatuwaayu xel tolloowul niki noonu kenn ku ci nekk danga am domaine boo xam ni moom nga gën a jagoo moo ne li may tudd lépp ci wàllu suura moo ne ñun ñëpp xam nañ Xaalid ibnul Walid ak ni mu amee woon expérience ci guerre ak ni mu jàmbaare woon ak cër bi ko yonent bi joxe woon ndax dégg ngeen ci ba ma commencé ba léegi ma ne yonent bi nee na xamoo Xaalid ñu diisoo nangam waxuma ko tekkiwul ni mooy amut waaye bu amee raar na ñaareel bi moom mooy maanaam ñàkk koo def est ce que day tekki ni Xaalid kon moom nangam nangam ci luñ koy xeebee déedéet waaye dafa fekk ni kenn ku ci nekk da ngaa am domaine boo gën a yaatalee ñooña loolal lañ koy jox ndax dégg ngeen xeex bu ma fi wax ma ne yonent bi muy jiital dañu bàyyi général yépp ni Abubakar yaay général bi kaay dem gis nga kenn ku ci nekk kon am na foo xam ni foofu nga gën a manee loolu tamit dañ ko bàyyi xel loolu ñay tànn ñi ñuy tuddee ahlu sura war nañ koo xam ñun ñiñ tànn nit war nañ koo xam su ko defee tamit maanaam nit ki ay ay ay bëgg-bëggam ay bëgg-bëggam ak mooñin gi ko yàlla mooñee dafay wuuteeg toujours ak bëgg-bëggi keneen am na koo xam ni moom daal tabiya am mooy dafa sedd moom daal dëgg-dëgg dafa sedd dafa sedd guy yu moom daal lu ñëw rek jàpp na ni sedd la koy faj kooku baax na ci suuraa bi baax na ci ahlu suuraa ak am solo ndax am na foo xam ne bu ñu fa suuraate teewut bu ñuy paree bu ñu yàlla dimbali ñu am échec waaye moo ne am na suuraa yoo xam ne moom baaxu ca ndax bu ca tooyee parab moom maanaam tabia bi ko yàlla bindee du loolu mooy régler solution situation bi ñu nekk bëgg a suuraa am na koo xam ne dafa tàng lool kooku nature la yàlla yi bindee ki donte nag kenn ku ci nekk boo nga ci am bu nekk dañu am lu cay baax am lu cay safaanu bu ko defee yaay jéema di defar nag sa bopp kooka moo ne am na suuraa yoo xam ni moom moom da cay présence am da cay am solo parce que jamono bi ñu toll dañoo aajowoo lu mel ni li mu am waaye am na suuraa yoo xam ni mbirum négocier la ak yéwénoo ak seddal ak nàngam kooka moom bu ñëwee na am ragal yàlla gu doy ni na xam tabiya am jéem a mooñ beese boppam tuuti lu bari ci lu yàqu suuraa loolu da koy am gis koo xamante ni moom tàngooram gi moom suuraa bu ñëw rek fekk jàpp na ne moo cay war a feeñ loolu maa ngi waxal ba léegi ahlu suura ñi ñu tànn ba léegi maa ngi ci laytaay gi ñëwaguma ci tomb yi ñaareel bi am na koo xam ne moom seddaayam gi jàpp na foo ñëw rek nañ négocier nañ négocier moom daal ay noo am problème nañ négocier fekk déedéet am na mbir yoo xam ne dees tu négocier bu doon ci jamono yonent bi am na mbir yoo xamante ne daan négocier am na yoo xam ne kuttu baat rek loolu amoon na ci jamono yonent bi am na mbir yoo xam ne amul négocier ndeysaan mën naa ko joxe misaal ci saxaaba yu baax ya Abubakar ak Omar kii daa sedd guy kee daa tàng jëppet Omar tàngooram dafa yeggoon ba ci jigéen ñi sax dañ koo ragaloon buñ ko gisee rek commencé raf-rafe benn bis yonent bi daa toog ci néegam di waxtaan ba mu yàgg mook ay jigéen ndax yonent bi da daan waxtaan wax dëgg yàlla ñu koy laaj seen ay masala di ko laaj seen i xalaat ah néeg bi xaw a mel lu xumb ba Omar toll fële rek dégg xumbaay bi ni asalaamualeykum kenn ku nekk lemu noppi waxatu Omar dikk daal waaw yéen lan moo tax ngeen noppi lu tax ba may dégg fa ma dégg seen coow lu ma ñëw rek ngeen noppi yonent bi ni ko ñoo yay noppi ndax koo xam ne seytaane bu ko séenee day rappi rappi ba teet gi ñoom ñoo yay ragal ko kon gis nga kooku loolu moo nekkoon tabiaam benn ñaa ñett rek mu caw la gis nga léeg-léeg mbir day ñëw Abubakar naan xam nga ñun dañ ci am ay mbokk ah kenn ku nekk na nga fexe rek ñu négocier ci usaar ci guerre bi ñu ngi jële ci kii wax wax wax wax Omar mu ni déedéet xam nga nan la ñuy def yow diw mooy sa ndijaay te ci la bokk demal nga rey sa ndijaay man diw sama baay la ci la bokk ma rey sama baay moom noonu la ko doon joxee gis nga mu ni looloo koy faj ak yu bari yoo xamante ni moom noonu la ko doon doxalee kon loolu tamit nañ ci bàyyi xel léeg-léeg dana am foo xam ne dana fa amee njariñ noonu moo koy faj waaye am na foo xam ne loolu boo ko defee da nga yàq loolu nag ñaari personne yii nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi ci biir mbooloo mi suura war nga caa bàyyi xel bu fekkee am na suura boo xam ne bi ma xoolee ba ci biir gis naa ne fii moom bu ñu fi négocier rek du ñu am solution ah su boobaa nag man gis naa ne kon sama position war naa gën a mën a feeñ teyit wal yattaqillaha rabba ci la muy wax ndax loo wax it na nga xam ni ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ay intérêt ay bànneex ay ay ay mbir yoo xamante ni intérêt personnel la surtout yooyu bu mu la tax ngay wax yépp dàq ko ba pare doog a feeñal saw tàngoor nag comme noonu la yàlla bindee subhanahu wa taala ki nga xam dafa nekk ku sedd tamit wax dëgg yàlla su fekkente ni daa fekkee foo xam ni maanaam kat fii nag wax dëgg yàlla bu ñu seddalee mbir mi du sotti su boobaa kat moom na seet wan yoon wu muy jaar u bokkut ak moom doon jaar ca suuraa yi nga xam ne seddal dëgg-dëgg la laaj loolu xam ngeen ko am na mbir yoo xam ne bu këttee ni jonn il fallait que seddal la laaj am na mbir yoo xam ne bu nee këtt ni jonn il faut tàngal la laaj lu mu laaj rek ñu daal di ko koy jox loolu nag mi ngi jugee ci ahlu suuraa beneen bi ci des moom mooy maanaam mbir bu gaaree ci boppam bañ indil ko ahlu suuraa balaañ caa suuraa dañoo war a teey lii lépp duggaguma ba léegi sax ci tomb yi yépp ci laytaay gi la rek ba léegi tomb yi duggaguma ci ba léegi bala ñoo jël mbir mi naan nañ ci suuraa dañoo war a teey ndax julit du jël ab taam di ko yàq ci loo xam ne su paree moo ne amul woon la de misaal bi ma ci mën a joxe waa université ñu ngi nii ñu ngi kii ci jàkka ji nekk fi ba mu yàgg ñu dégg ni benn waaye daal am na ak musiba ñu mu def ca mosquée ba moo xam lu mu fa làq loola moo xam nag ñu yàq suñu waxtu fii ba ngoon tarare ndekk fekk ay déedéet nañ def ay gëstu wax ji fan la jógee ba pare balaa ñoo dem suuraa balaa ñoo toog di wax wax ji ndax wér na information bi ndax wér na ndax jar na toog di yàq temps ndax ki ko wax ku mu doon fu mu ko jëlee gis nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne war nañ koy bàyyi xel ñun ñuy suuraa balaa ñuy jël suñu waxtu di ko yàq yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ginnaaw boo xamante ni sàmm nañ ko ba noppi nag ah nañu mujjantalee nag xam ni xol yi ci boppam jotewut ak suuraa yi dara xol yi jotewut ak suuraa yi dara wuutey gisin warta mën di jur mukk wuutey xol ndax loolu day am ci suura li ma wax mi ngi leer wala leer defe naa mi ngi leer ndax su dee yéenay suura xam ngeen li may wax léeg-léeg kii dana gisee jëm penku di xotti daw kee moom sori ko jëm sow di xotti daw te du tee ñoom ñaar dañuy wëlbatikuwaat ba raayante ay ndigg parce que kee dafa gis ni xotti jëm penku moo koy sottil kii gis ni xotti jëm sow moo koy sottil duma la ŋàññi dooma ŋàññi waaye nag dañuy jëm ni gëm ni ku nekk mbaax rek nga bëgg mayit ma oyof ba saa su ma gisee dëgg topp ko waaye loolu nag jotewut ak dara ak wawu maam tàngu xol wala mer wala bokk yi nga xam ne dana feeñ ci tomb yi te mën a juddoo ci suuraay kon tomb yi mi ngi noonu tomb yi may bëgg lim nag mooy tomb yi nga xam ni jaadu na mbooloo muñ falati ni mbooloo mii kat ñoom lañ tuddee ahlu suura tomb yi moom mënta ñàkk mu am ci ñoom tomb yi mënta ñàkk mu am ci ñoom kuñ yëg ni amoo ca day wax dëgg yàlla wor nañ su fekkee ñoo la tànn yawit wor nga su fekkee bàyyi nga sa bopp ca mbooloo ma ñuy tànnee teyit nag ndimbalu yàlla subhana taala yaakaaruñ ni dana ñëw su fekkee lu mel nii daa am ci mbooloo wala mu bari ci ndax toujours yi ëpp ci échec yi am rek ca bunt boobee lay génnee moo tax ñu ne ndimbalul yàlla yaakaaruñ mu ñëw bi ci njëkk mooy ixlaasul niya kooku moom fi kulli shay ixlaasul niya fi kulli shay dafa mel ni daal ixlaasul niya moom foo ko dugal rek moom xaj na fa moo taxit boo ñëwee fi moom la ñuy jiital ixlaasul niya kenn ku nuy tànn pour mu dugg ci ahlu suura ña koy tànn nañ def ixlaasu niya xam ni mbaax rek lañ ci jublu moo tax ñu koy tànn yow min tànn ngal la waaye na nga am yéene bu sell ci sama jëmmi dugg ci mbooloo mii ñu tuddee ahlu suura di diisoo day sabab bi du lenn lu dul wër dëgg gémmiñu kum mën a bàyyi ko baax na comme ni ko kàngam bu mag ba doon waxee shafia yi mu ne man day dëgg day su génnee sama làmmiñu mbokkum julli sax damay kontaan ndax man ñu àgg ca xàll ba rekk ma yitteel man kon na nga sellal sa yéene bépp xalaat booy génneeti ngalawaay na nga ragal yàlla sa borom ba xalaat boobee na nga ko togg ba mu ñor ba nga xam ne bii kat su génnee dana am ay njariñ bu naree am ay lor bu ko génnee ndax kat ñu boole la ci ahlu suura ñàkk a sellaluk yéene yóbbee la xalaat jot nga génne xalaat boo xam ne bi nga koy génne am na ay yartaxi bànneex yu ci làqu ba nga génne xalaat boobu ñu exécuté ko jëfe ko mu jural lor mboolem jullit ñi nekk ci suñu gannaaw kookee di nga ko layof sa borom loolu nañ ci bàyyi xel lu rëy la lu garaaw la nag bu ñu defee ne dafa simple simpleul de wallahi la azim simple ak lu mbooloo mi tuuti tuuti tuuti bu yóbbu université la bu yóbbu dix personnes lañ lu manti doon ak lu mu bari bari bari bari su fekkee yaa ngi génne xalaat ah na nga ragal yàlla te àndal sellaluk yéene ba xalaat bi ngay génne na tolloog fa nga yàpp ni lii kat lu baax la su fekkee yow loolu nga jàpp na ba pare xalaat bu baaxut kooke incha allah doo am lor dañ koy jox àtte mujtahid bi nga xam ne dafa fatwa ci ijtihaadam fekk mu juum dana am benn tiyaaba incha allah wa kadalika kii ñu tànn mu jëfandikoo yii may wax ba pare juum su boobaa dana am benn tiyaaba incha allah mooy tiyaaba gi góorgóorlu gam def ngir génneel jullit ñi waaye su juumee te njuumte ga fekk maanaam jaarul fa mu war a jaar maanaam dana am ñaari bàkkaar mooy toggoona loo xam ne alquran moo ko njëkk woon a tere ndax boo xamut neel xaw ma warul wax bul wax ñaareel moom mooy wor nga yàllaa ko bu yonenteem ak jullit ñi la wóor kooku nañ ci bàyyi xel jar na dem suuraa ba suuraa bi jeex nag boo amul xalaat ñun ñun danoo man xawma danoo feebar xawma danoo rëy xawma danoo danoo xamut dara rek fi mu nekk nii suuraa bu amoon ma ni nii ñuy wax ko ne ah non point boobu na jàll awma ci xalaat mu fukki point juróom ba mu yépp jeex léegi mbooloo lan la ñuy xaar kon kay man jëratul may ñëw suuraa subhanallah ak a jar may ñëw suuraa awma ci xalaat awma ci xalaat mi ngi mel ni borom xam-xam bi nga ne lii mooy mun ne laa adré nga ne ko ba nga ba ñett yoon nga ne xamul dara nga ne xamul dara loolu loolu loolu ay wax la gis nga awma ci xalaat wala xalaat bii ma ci am daal gis naa ni gars yi ñuy génne wax dëgg yàlla moo gën a rafet su boobaa naa noppi loolu mooy maanu te ma bàyyi ñeneen ñi ñu wax kon ixlaasu niya wa taqwallahi azza wa jal mooy li nga xam ni moom lii moom warul am lu ko jiitu ci kanam leneen lu ko jiitu rek fu ñu yegg duñ du baax kooku mooy benn ñaareel mooy an yakuna al himma maam al xusul ala al xal sama objectif sama yitte na nekk rek li tax ñuy suuraa li tax ñu woote suuraa nañ ko amal solution toppatoowu ma nag solution ba ci sama gémmiñ lay génne wala ca gémmiñ ak ma sàmba wala gémmiñ ak demba lay génne tom bu am solo la moom it léeg-léeg dafa mel ni feebar gi nu feebar day feeñaat ginnaaw bu mu bombardé ñàkk sellu gi yéen ak ragal yàlla tëb ko daal di ne lay yegg si fii dafay feeñaat ci da ngay bëgg nag